kon bu 23h euh, jotee euh, suba ak jàmm nag lañ koy jébal boromam euh, bu 10h jotee fu fees diwaanu Thiénaba moom Baye Abdou Rahman Seck génn àdduna altine yemoo ko fan si weeru août bi 2021 def lu toll si fukki weer ak ñeent si xilaafa gi signal ñu ngi lay bu baax di la ziar. jërëjëf imaam ñu ngi lay nuyu di la ziar di nuyu maam daam di ko ziar di nuyu mbokki auditeurs mbokki téléspectateurs yi suivre ñi ñuy déglu ci fii ci Sénégal ak ñi nga xam ne ñoo féete ci jaspora bi. Mhm. jërëjëf Baye ñu tàmbali ak lu gën a fës si xëtu yéenekaay yi euh, ñu doore ko ak L'As Quotidien Euh, L'As quotidien Souleymane ak yenn kaay yu bëri ñoom sax daanaka dañoo xëy ñoom itam bokk ak tiis wi nga xam ne moom la umma islamique bi yëpp daal di euh, nekkee nelaw ak ñaari kilifa diine yu ràññikoo lool ci euh, yoon wi ak ñi leen wutu ci bopp xilaafa gi ñu daal di jiite woon tamit nag yenn kaay yëpp daal di nañ ci xëy ni tey jilee ne pertement bu mag la jullit yi daal di nekkee waaye nag ñi leen tamit ñoom itam ñu ñu ràññee lañ ci li nga xam ne lii moom mooy seen xam-xam loolu yëpp yenn daal na ci ñëw ba ci wàllu euh, mbas mi ak euh, euh, tolluwaay ñu dem de la santé nga baal ñu jëli situation du jour bi ak Babacar ñëwaat treize virgule soixante pour cent les cas positifs sont répartis comme suit nous avons eu 77 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 495 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés comme suit. Dans la région de Dakar, nous avons noté 308 cas tandis que les autres régions du pays totalisent 187 cas. 448 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 63 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 19 décès ont été enregistrés le mardi 10 août 2021. l'état de santé des autres patients hospitalisés ou suivis dans les domiciles est jugé stable. À ce jour, 68 920 cas ont été déclarés positifs, dont 52 014 guéris, 1545 décédés et donc 15 360 patients encore sous le ministère de la Santé l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services et sont suivis dans les domiciles. Le ministère la Santé l'Action sociale informe par ailleurs depuis le début la campagne de vaccination contre la COVID-19, 1 068 496 personnes ont été vaccinées sur l'étendue du territoire national. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective tout en leur faisant les recommandations du jour, notamment prenez soin de vous, de vos proches et de la communauté et veillez sur les conseils de ce matin axés autour du port correct de masque, bien ajusté couvrant la bouche et le nez, le lavage fréquent et régulier des mains à l'eau et au savon ou l'usage de gel de qualité pour la désinfection de vos mains, ah, d'aller également se faire vacciner au niveau des lieux de vaccination désignés, après avoir été vacciné, de conserver soigneusement votre carte de vaccination, d'aller au rendez-vous pour prendre la seconde dose à cet effet, de continuer à respecter les mesures barrières comme tous. Je vous remercie de votre attention. asalaamaaleykum mbokk yi ma jottali leen communiqué bi bàyyee ministère de la santé et de l'action sociale tey bésu alarba fukki fan ak benn ci weeru août mi nekk ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat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 ñeent téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom yu tuddee cas communautaire mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñu fi ñu ko jëlee walla ki leen ko wàll ñooñu seen lim ni la tëdde ci ndakaaru ak li ko wër am nañ ci ñett téeméer ak juróom ci yeneen région yi am nañ ci téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar ñeent téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett ci malade yi entré woon hôpital dinañu génn bu ci yàlla àndee juróom benn fukk ak ñett malade ñoo nekk réanimation fukk ak juróom-ñeenti malade ñoo ñàkk seen bakkan bésu démb talaata fukki fukki fan ci weeru ut mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ak ñi topp ci biir kër yi ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wëññi na juróom-benn fukki junni ak juróom-ñett ak juróom téeméer ak ñaar fukk ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu juróom fukki junni ak ñaar ak fukk ak ñeent wér nañ ci junni ak juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom ñoo ñàkk seen bàkkan mu des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 bi vaccination bi dooree ba léegi ñu jot ñàkku ci biir réew mi yépp ñu ngi toll ci benn million ak juróom benn fukki junni ak juróom-ñett ak ñeent téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom benn ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi woo askan wi ñu gën a sàmmonte ak digle yi ñu joxe bos bu nekk di wax na ngeen aar seen bopp aar seeni njaboot aarale askan wi di bàyyi xel ci mbir yi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 wasalaam waaye balaa ma leen di bàyyi naa leen xamal tamit professeur Daouda Ndiaye te mu nekk di jàngale université de Dakar nekk hôpital Le Dantec dina ñëw fii tamit taxaw fii ci ay simili yu néew pour waxtaan ak yéen ci mbas tolluwaayu mbas mi. Je vous remercie de votre attention et vous annonce également que après moi le professeur Daouda Ndiaye euh, de palédologue mais également enseignant au niveau de l'Université de Dakar et chef du laboratoire de parasitomycologie au niveau de l'hôpital Aristide de Le Dantec, fera également un entretien pour vous faire le tour d'horizon des données autour de la COVID-19. Je vous remercie de votre attention. ngoog ñu sant ko bu baax moom docteur Mamadou Ndiaye directeur de la prévention foofee ministère de la santé de laction action sociale euh, tey nag mbas mi ñu am lu tollu si euh, cinq cent soixante douze yoo xam ne ñoom ñoo positif am na soixante dix sept yoo xam ne ay cas contact lañ euh, quatre cent quatre vingt quinze ñoom ñooy cas communautaires yi ndakaaru nag jamono ji ñu jàpp ne euh, moom moo jël raw gàddu gi ndax am na lu toll si 308 euh, yoo xam ne am na ko si cas positif euh, loole ñi 19 personnes nag ñoom ñoo décédé suñu sukkandikoo si ki nga xam ne moo di docteur Mamadou Ndiaye si vaccination bi nag ëppal nañ fu mu toll nii million ak ñi nga xam ne ñoom ñoo jot vacciné wu fii si diwaanu Sénégal badam ñu wëyal ak euh, las quotidien nga nekkoon. alors las quotidien lañu ñu euh, nekkoon la mu euh, nekkee ak xëy fësal ko tey jii lay mooy làquk ñaari xalif généraux. Euh, benn bi bu Laayeen benn bi bu Canaba euh, Seck ñoom nag euh, seen ak dëddoot na tax na fi ñu tunni wala seen ak làqu tax na ba umma islamique bi yëpp daal di nekk ci ak tiis ni ki démb nag kenn ki di xal général bu Laayeen nag moom daal dinañu rek koy wuutale ki nga xam ne kii moom mooy Mamadou Makhtar Laye xali général bu Canaba Seck moom itam bi làqu sëriñ Assane Seck moom itam noo ko daal di loolu lay lépp euh, nag yéen kaa daal na ci euh, xëy ni euh, moom ab néewam nag di sëriñ Abdou Rahim Seck dana yegg si tey bu 11 ci guddi gi jotee ëllëg la ñu koy daal di jébbal boromam bu 10h ca cuuti di dëkk boo xam ne bii fa la nekkoon doon jàngale alxuraan yéen bi daal di ci ñëw ci jaar jaar ñaari xalifa yi nga xam ne yi ñoom la ñu daal di jiital ak seeni i jaar jaar. leen loo xam ne tamit yéen kaay bi euh, daal dina ci euh, ñëw Souleymane Lass ba tey euh, lu jëm ci wàllu mbas mi ak ñoom jafe-jafe nga xam ne ñu ngi koy daal di jànkonteel lu ci wàllu wàllu masque yeeg ñu daal leen ko yombal wàllu neexal di prime yi nga xam ne dañ ko war a jox waa alliance ànd gësëm ne ñoom danañ wéy di gësëm ba baa ñi am li ñu daal di bëgg wala li ñu warlante ak ñoom yem ak euh, mbas mi fanweeri doomu aadama ak euh, benn ñoo ci ñàkk seen bakkan loolu lay nit ki euh, démb la ci benn fan dong nag yenn kaay bi nii fi ñu toll nii amati nañ lim boo xam ne bi mosuñ koo am ci doomu aadama yu ñàkk seen bakkan ci wàllu mbas mi yéen kaay bi ne mbas mi mu ngi ci aw yoonam moo taxit daal di koy xeex nag jot na wala sax gën a dooreel li nga xam ne li moom mooy xeex bi ca diwaan bu Tambacounda moom meneen mbir moo fa daal di amaat ndax xam nga noppeegun ci coowal euh, bac bi euh, fële ca njaarim ak la fa xewoon bi la yoon nag bag bi euh, fële ca diwaan bu Tambacounda BFM bi ab xale bu jigéen moom la ñu jàpp mu doon defal bàjjanam examen ñoom ñaar ñëpp moo bàjjan ji nag jàpp nañ leen ñu nga ci loxoy yoon est que waaw defalaat góor góor moo doon defal jigéen defalaate dafa xew bii daa dafa xew defalaate moo xew defalaate jàppalante moo xew BFM <laughs> hmm? ñu ngi doon daal. war na ko de. ah waaw comme hmm? tante yi. dina ji ni xel bi neexut wala mu am gàllankoor. xëy na dafa gàllankoor. xëy na dafa gàllankoor. waaw waaye nag bàjjan ji wax dëgg yàlla bu jàngee ba neuf mois gën examen rek des. Hmm. war naa góor euh, jigéen jigéen rek dem. day na waar de. Hmm? Alioune defalaate dafa xew de. examen. te dégg naa benn waay bu bind lu reelu. mu ne bu dee ne ki jàngi. ak ki dem examen ak ki corrigé hmm. ak ki bindu not bi hmm. kenn bokku ci hmm. élève bu foor mën na fee am 4 sur 20 kiy jàngi pendant ak kiy dem ci salle bi defee examen ak kiy corrigé kiy corrigé bu pare am na keneen kuy bindu note yi ci fii yi bu fekkee ne nit dëgg yàlla élève bu fort mën na fee am 4 sur 20 daa bàyyi ne élève bu xamul dara mën na fee am mention baaxul nag moom lu daanaka ci crime yi la bokk sax. ndax da ngay jox nit compétence bu mu amul. seulement que dañu war a xoolaat examen aussi est-ce que jarul ñu xoolaat ko sujet yi ñuy joxe ak ni ñu koy joxee barki Demba Ndiaye maa ngi tooñ benn doom bàjjan boo xam ne bi examen blanc bi ñu weesu nii moom moo jëloon euh, première bac bi jot amut amul sa oral ak yeneen ak yeneen yoo xam ni euh, aju na ci dama koy bañ a naqadal xolam comme nee naa ko sooy boo nga dem sëyi. boo ko ci tegee leneen day day day day kii sama doom bàjjan la bu nekk euh, mboy naan ana euh, waaye daal xam naa ne bii mooy ñetteel bi yoonam te kenn ku ne es euh, lay def mais kenn ku ne xam na ne farlu bi mu farlu mm-hmm. ak ni mu bëggee njàng mi examen blanc bi rek gis nga ko dafa dafa dafa raw ñëpp mais gis nga bi examen jotee amut te moom peut-être benn cas sax ci yeneen cas mm-hmm. ñaata nit ñoo am examen blanc ñëw au-delà des examens blancs sax ñu ñëw def yi nga xam ne mooy seen devoir yeeg seen lépp mais dañ ci génn carrément ñëw ba si jour ji jour examen bi soit ñu nekk en forme soit am na lu leen manqué soit mhm. sax tiit nañu am na ñoo xam ne ñii mënu mënuñoo dékk loolu léegi nag bu ko defee nga xañaat ko meneen at meneen at mën naa ñëwaat nga xañaat ko ko ñetteelu at mu doog am université ñu ne am na at yoo xam ne boo ko amatee léegi duñ la mañ nga duggati université mhm. mais loolu lépp ndax tey dañoo war a jàpp na tey sujet yi leen di jox ndax waruñ koo gën a mën a xoolaat xam ne xëy na du ab test boo xam ne parce que léeg-léeg ñu jox la ay sujet yoo xam ne tey danga naan man ana li ma doon jàng fu mu faree te ñoom dañ leen ni natt bokkut ak étudiant bi étudiant bi moom dañ ne gëstu kël la dañuy ñëw jox la tuuti li ci des yow yaay dem gëstu ji ko nga xam nga parce que dañu jàpp na léegi mag nga moo xam ne mii war ngaa xam lu baax ak lu bon mhm. kooku moom xëy na luñ ko jox luñ ko joxul li war na ko mën a dem gëstu ji waaye ki nga xam ne kii moom mi ngi terminal wala mi ngi BFM li mu jàpp te mooy loo xam ne lii loolu loolu loolu la ñu doxal mooy li ñu ko jox ci lañ koy natt ëllëg léegi li ñu lay jox boo ca yemee xëy na amoo yenn mooy di xalaat ca loola te xoolal la ñu ñëw jox la benn actualité boo xam ne bii lii léeg nga ne waa man ndekk lii kañ la xew ci réew mi fekk mosoo xam lu xew ci réew mi nga xam ne ça n'a rien à voir ak yow li nga li li liñ la jàngal mm-hmm. bu ko defee ay gone yu bëree bëri ngi redoubler ci redoubler yoo xam ni leer na la ñoo am na ci lu ñu aay te ña dem xam na ne ñin fi bàyyi ñoo leen gën a aay léegi nag nu ñu def tax ñu ne examen chance la waaw mais chance boobu tamit mais est-ce que dinañ leen jox lu ñu jàngul aussi dégg nag gis nga nag chance la mais dafa mel ni lu waa doon wax jàngalam lu mu doon doon chance. Hmm. daa mel ni sëriñ bi lay ñaanal sëriñ bi ñaanal mbër mu ja mbër mu dul entraîné. bien sûr loo am am chance te jàngoo. Hmm. soo demee examen. Hmm. yaakaaruma nga daga jàll. bu doon chance la rek nga toog nga gis ko toog seen kër ba kii mu dem wutib sëriñ. ak bu mu yaakaar comme cas bu mu wax di nga gis ñoo xam ne examen blanc bu ñu teg ñoom ñooy jël P. Euh, premier semestre ñooy jël P deuxième semestre ñoom jël P nga ñëw examen. waaw xam nga jour de l' examen. le jour mm-hmm. gis nga boo gisee. am na matière yu lay jàngal. Mhm. am na am na kii am na am na njëriñ. Mhm. mais dafa lu muy préparer nit ki. Mhm. par exemple le sport bi ngay def. par fois c'est pour nga xam nga def deux heures de temps de sport ñëw dugg classe. da tax élève bi bi stressé woon. mu dañ deux heures de temps yi ngay dem yow xale bi dem football. dem tëbi dem defi gymnastique ñëw dana tax yu bëri yu nekkoon ci sa yaram. ak benn concentration nga def ko le jour de l'examen dafa am facteur yu bëri. ak élèves yi parfois danañ jàng da nga gis élève boo xam ne day jàng at bi yëpp amul mhm. problème day am ay moyen amul problème mais le jour de l' examen stress la mhm. du ñu nelaw maanaam la veille mhm. bi ñu war a def examen am na xale yoo xam ne du ñu nelaw da ngay gis sax demal nel tëdd yi da ngay da ngay defi examen dana tëdd waaye du nelaw parce que c' le résultat qu'il attend stress boobu su ko xale bi euh, dékkuwul bu tiimee épreuve yi mën na nekk ci moom. pression bi ñu teg ci moom aussi. mën na nekk ci moom euh, facteur. n'empêche nag dafa am élèves yoo xam ne yi bon ci ñu gëm yàlla comme ni ma koy waxee toujours. Mm-hmm. dafa am ñoo xam ne ñi yàlla moo tracé seen yoon. Mm-hmm. dañuy jàll ba examen jot ñu jàll dem seen yoon. am na ñoo xam ne dañuy brillant ba jour examen ñu raté. Mm-hmm. dem defiwaat examen jàll. cest à que facteur bu taxoon ñu rate examen boobu mën na nekk am na mën na nekk lu bari mën na nekk paramètres yu bari imaginons nga def jour ba war a def examen ñàkk way jur man nga defi examen mais mën nga faa bañ a nekk mbala mën nga bay sax ñàkk war way jur mais mën nga jour bay xëy bay defee examen yaa ak papa xuloo mm-hmm. y a des facteurs yuy tax man nga yooyu yëpp mën na bañ a am mais mën nga sax demee examen xëy xiif ak nag lu nekk tax laa bañ a bañ ñàkk examen mm-hmm. à l'école y a pas généralement école primaire ak collège mm-hmm. généralement y a pas de de si sunu éducation bi y a pas de parents nantis parce que c'est des parents pauvres yi dem di jàngi mais le jour de l' examen dafa kii ci école ci élève chance la nag c' est vrai mhm. mais ñi ngi yaakaaree réussite ki jàng noo ki jàngul mhm. am na examen ñu ne man de am na bac ñu ne waaw nga ne kon de ma mm, <laughs> xam nga mën nga bañ am moyenne waaye yaa ngi ci classe bi mhm. examen ñëw nga jàll mën nga nekk un élève brillant examen ñëw nga jàll deuxième tour généralement élève bi koy def du ko sax neex mais bu bu reprendre si résultat yi ñu koy orienté heureusement que duñ du ñu orienté élève bi si résultat yi muy am généralement dañ lay orienté si kii yi nga am c'est pas si note yi nga am mais si si résultat wu examen bi mm-hmm. gis nga ku ñu orienté fenn mu def dérogation mm-hmm. parce que xam ne ne fee bu fa demee du fa génn mais facteur bi nekk mooy stress bi ak pression bi élève bi bi jot mm-hmm. chance la nag c'est vrai mën nga cee jàng joo jàll mais nag jàng jàll daal moo gën a wóor ñàkk a jàng waaw lu ñu la ñaanal ñaanal moom big bu bees ak eh, soccookook bu ñu joxee loxook yooyu yëpp ñun ñu ne def nañ ci <laughs> waxal lii bala ngaa bind ak na fekk nga jàng leçon ba pare mhm. waaw boo jàng leçon ba pare yooyu yëpp du sotti am na solo nga daal bulletin yi daal waaye bulletin yi man pour man daal war nañ ci et puis yi dañ ci bàyyi xel aussi eh par exemple euh, xam nga wax premier semestre wax nga deuxième semestre mooy bulletin yi par exemple tey boo dee ban lay orienté par exemple nga bëgg a dem ci benn faculté mhm. hmm? Euh, dañu sukkandiku ci bulletin yooyu am na ñoo xam ne sax dañu lay laaj léeg-léeg bulletin yi maanaam sa premier semestre deuxième semestre seconde premier terminal dañ la koy laaj muy second second semestre bi loolu pourquoi te it mënuñ koo def ñenn ñi pour man. mais mais mais bac bi mais ñi ñi bëgg a xañ examen bi gi yoo xam ne tamit. mais erreur bi mooy bac bi suñu lay orienté duñ sukkandiku ci premier semestre ba deuxième bi de. non ces résultats yi nga xam ne par exemple foofu tam erreur dafay am. waaw di nga gis benn gune goo xam ne. dafa ñëw ba bag peut-être nul na euh, anglais wala espagnol par mm-hmm. exemple. Mm-hmm. mu ñëw ñu jox ko loo xam ne aay na si mu def si mu am seize dix-sept mm-hmm. nga orienté ko espagnol. peut-être que su demee espagnol est-ce dina fa def dara. par accident moo taxoon mu am not boobu noonu seize boobu donc loolu dañ koy gis aussi si si bac yi su ma sañoon kon euh, orientation yi ñu xool ko diggante seconde ba terminal xool xale bi fan la gën a aay fan la doon gën a excédé ñu kii ko. ñu orienté ko foofu. non loolu loolu moom loolu loolu moom am na solo lool xam nga nit yi en général am na ñoo xam ne ñii depuis bi ñu commencé sixième la ñu commencé orienté seen bopp. Mm-hmm. à l'université. Mm-hmm. matière bi ngay jàng bi par exemple li ngi ci def gëstu doo ko def ci beneen gëstu. Mm-hmm. man je me rappelle euh, sama professeur bi Moussa Moussa Ndiaye l'actuel maire de Thiamène Pass. kooku demoon na ba nga xam ne bii man ak sama benn xarit bu ñu doon wax Ablaye Ndiaye dañu doon wax ne devoir anglais. normalement sept la ñu war a def mais ñun def nañ vingt et un devoir def nañu ko. Mhm. parce que daf ñu wax ne dee leen dem ci yeneen classe yeneen professeur sama xale bi bu ñu def examen ngeen euh, bu ñu def seen euh, composition ngeen bokk sa ñooña tes seen connaissance fu mu toll. loolu pour dire que ne man bi ma njëkkee ñëw par exemple université man département espagnol lañ ma njëkk orienté maa ne leen su ma demul angale gan sooy ba ma jël samay kaaka dem ñibbi parce que espagnol même lu ma ci kii xaw ma ci lu bëri. au moins am encadrement boo xam ne bi laajte par curiosité ñu ne ma kon bul comme buggoo dem fii bul inscrire gum mais boo xasee ma inscrire rek fi mu raw na la mënutoo dellu gannaaw te loolu tamit risque la woon d'une part. Mm-hmm. parce que mënoon ngaa xaar fee deuxième liste génnaat duñ la fa orienté bu boobaa nooy def risque ngay jël mais am na si ñoo xam ne dañ ne leer na la ñoom ñëwuñ fi ngir ñëw ni waaye gars yi da dégg ñu ne man fu ma orienté baax na. fu la orienté baax na te nga dem ci loo xam ni ay mille étudiants ñoo fa nekk mais foofu boo nekkul meilleur doo ci génn. Mhm. te loolu faaw nga am benn gëstu boo xam ne bi yaa ngi ko def ci màcc ci ci màcc parce que boo xasee ba génn terminal rek léegi spécialisation yi presque taxaw na mais bi ñu taxee ba deuxième première liste bi génn deuxième liste bi génn ci laay doog gis sama tur ñu ne ma doogal dem inscrire c'est-à-dire loolu boo amul étudiant boo xam ne par exemple ñëw nga di ndoorteel ñu tudd la ab bleu xamagoo nu mu nu mu demee ñu ñëw orienté la ci benn ci benn faculté. par exemple yow leer na la am nga ci moyen mais am nga feneen foo xam ne fa nga bëggoon dem ndax da nga am ku la wax ne gan ah taaxalu nga xaar fee wala ngay dem njëkkante rek naa inscrire balaa gars yi commencé gan balañ maa raw sumay cours ma def ko loolu lépp ay information la yoo xam ne yi war nañ koo jox nit ñi mais man daal ma revenir aat sama proposition bi man daal pour man am na ci eh, ay candidat yoo xam ne yi bi ne éliminer ci bac war nañ ko xoolaat parce que leer na la ñu am bac dem ñoom ñoo leen gën a aay léegi nag war nañoo xool yan facteur moo tax dëgg-dëgg ba jour exemple ba amuñu bu dee loo xam ne lu mën a ñu sukkandiku seen bulletin pour ñu dem bañ yàq ay at parce at moo yàq rek mënutoo ko d'abord. sukkandiku si bulletin saa nga def ak ah, soo jàllu sama proposition la. non proposition baaxul. <laughs> bu ma bu baaxul bu baaxul daal mais seulement yow ñaata nit nga <laughs> xam nga ñoo xam ne ñi yow leen na la ba ñëw seconde ba tey ba troisième ba seconde ba terminal ñoom ñoo fay jël ñoom ñoo fay jël pe di am ay notes yu baax a baax. am na ñoo xam ne bac la seen moo dem deuxième tour heureusement yàlla dimbali ko mu am bu amatoon léegi nu muy defaat. mais day taxaw du xaaral. mais am na ñoo xam ne dañoo brillant mais bac la seen njàng mi yàqu. ndax mënuñu am bac. léegi nag évaluation ñu am moo bind ne peut-être waaw mais est-ce jàpp nga ne li ñu leen defar ñoom gan seen première exe seen examen blanc yeeg seen euh, premier semestre ak deuxième semestre mais moo léeg moo gën a jafe li ñu leen jox examen moo gën a jafe li ñu leen di jox examen. léegi soo demee licence tamit nga def loolu. kan si non licence beneen mbir la bac tam beneen mbir la. waaw non dama ne waaw moom parce que parce que diplôme la. waaw mooy premier diplôme universitaire moo tax nag kenn waru ko caaxaane. waaw man daal pour man war nañu xoola suñu système bi. Ah, maanaam kii bu nekk euh, étape bu ne. Ah. dafa am lu muy maturité bu muy. bu muy euh, proposition moom baaxul moom. waaw ah, non da nga ne baaxul si yow. da naan baaxul si yow ah déglu Alioune rek xam naa yow moom bàyyi Alioune wax rek. waaw waaw yow moom comme yow fi doon yow yoo xam ne leer na la yow ils sont très brillants. ñu leen di yi rek ba dem tooge. je pense ndax diggante sama sëriñ. <laughs> non non garaaw waxal sëriñ bi rek garaaw doo non yekk ma ko. sama sëriñ bi. yekk ma ko garaaw. diggante sama sëriñ. sëriñ moom ko wax dara yekk ma ko yekk. bindeewuñ sëriñ bi di wax ngay teg. yekk ma ko <laughs> sëriñ sëriñ bi de su mu nekkul li ñu koy wax tamit. yii kenn du ko def. non bu fi nekkul mu nekk bi rek. ah man damay sama sëriñ bi. <laughs> naa leen ko ci bañ a yàqu moom. naam fooy yem. Eh. naam naam moom. démb de wax dëgg yàlla lu ma mën defar naa ko. Mm-hmm. moo tax gars yi dañ ko baax a baax a baax Sénégal dañuy dañuy gis nit mm-hmm. mu yor ay kiraama waaye duñ ko ko kiiwee. Ah, du ko foogee ndax du ko won ndax dañu bëggoon fi mu ne nii nga sol yu gudd. ruy xam nga. di dox di jaaga jaaga di wanewu ah duñ ko xam. waaye buñ xam buñ la xamoon dey hmm. danañ teel a ñëw de. waaw dañ nga ban xamoon ah. day dañ dañ xelu ñëw balaa ñuy xëlu di ñëw di hmm. ah. <laughs> waaw xelu ñëw moo gën waaw docteur Annette Annette Ndiaye bi également wax na lu am solo de nee aussi euh, nañu lu ba li ñuy wax euh, auto médita euh, médication yi tamit nañ ko dakkal. Hmm, na maanaam léeg ñu digal la rek na la garab sàngam kat ba sa maam sojee garab sàngam la naanoon. Hmm. nga nga dem dëkk ba ñu ne ndax indaale wu ma ci garab yi yéen dégg naa yéen am garab yu baax yi te garab bi may faj mën na laa bañ a faj mën yu bëree bëri nag jafe-jafe yooyu loolu dañ koy am moo tax mën na ko nañ ko dakkal. Hmm. voilà. wax nga dëgg de gune yi dematuñu hôpital waaw. atia le quotidien le quotidien yéen kay dafa daal di des ci euh, xalif yi nga xam ni dañoo daal di euh, génn àdduna ak ñi nga xam ne ñoo leen daal di wuutu yéen bi daal di ci ñëwaat ne moo xam yoof moo xam canaba sek kenn ku nekk ma ngay jooy ab xalifam yéen kaay bi ne umma islamique yëpp kay ñoo leen daal di euh, jooy waaye nag am nañ ñu leen daal di euh, wuutu euh, ci liñ leen daal di dénkoon Serigne Doudou Makhtar Thiaw Laye moom léegi moo ne xalif général bu Laayeen Serigne Assane Seck moo daal di wuutu ndem si yàlla Serigne Abdourahim Seck loolu la yéen bi daal di xëye ni ki tey jëlee ñoom ñaar ñëpp nag yéen bi ne jaar-jaar yu am solo lañu am ci li nga xam ne lii moom mooy mooy euh, diine ji ak taxawaay bi nga xam ne ñoom lañ ci daal di am dont ne sax am na ñoo xam ne euh, moom daanaka ñoom dañoo daal di nëbbatu lool ñu bëree bëri xamuñ leen loolu lay yéen kaay bi daal di ci xëy ni ki euh, tey jile nii senegal di xeexee mbas mi ak na ko Amérique di xeexee professeur Moussa Seydi ma nga ca Amérique waaye waa Amérique nag delloo nañ ko njukkal. ci taxawaay bi nga xam ne moom la daal di am jox nañ ko lijaasa waaw. moom Seydi moom Seydi. moom professeur Moussa Seydi professeur. jàmbaar la nga xam ne bii Moussa léeg-léeg mu gëm ko léeg-léeg du ko gëm. ah. c'est hmm? hmm? seen émission bi dem ñoom ah yaa fa manqué yaa fa na ko waxee woon rek. kay moo tax bëggoon naa mu fekk ma fa loolu. ah déedéet man non na ko waxee woon rek ñun kay. jéem nga leen a jax kii. boole nii nit kii moom fi mu toll nii moom bu la xasee ragal seen xel ragal na la rek. xam nga balaa nga balaa nga fayu. waaw dëgg la ah, ah, dëgg la xam nga go xam nga bu yàgg. Hmm. léeg nit dalay leen moo la man de mais boo xasee baragal sim xel rek jeex léegi nag ñun fi doon lépp lu ñu wax mu xëppi suuf parce que. <laughs> Alioune moom ne ko loolu laa bëggoon wax. Ah. li nga wax am na solo de. diet dafa ne gis nga tukki. Euh. ba pare jàng mayet suñu borom la ñi nga xam ne génn jam gi. dañuy wax lu li xew fii ak jam ñaajo. suñu gis nga internet bi nitul léeg-léeg. xam nga tey su duggoon internet bi du lépp a net de. su duggoon ay caamen paas. yii ay barkeej boobaa danaa si wax sama xalaat. waaye ay envers la lay wax. Ah, waaw ay route ay do yoon yoo xam ne. xamoo fa looy tontu. waaye ah, soo ko tegalee koo xam ne moom la ko gën a xam. moo tax gën émission muudu muudu kese la ñu a def ba ñoom ñëpp ñu toog <laughs> bu ko defee ñoom au moins léeg-léeg bu ñu waxee ci gars yi ñun ñu xam mais ñun wax dëgg yàlla mm. diggante Saalum ak kii yi dañ xam li ci des yëpp internet bi ñu koy wax internet bi ñu boo ci góorgóorloo di ci di ci dëgër fit moom mooy gën kenn moo lay woo fële te émission interactive mm-hmm. ah. xam-xam fi mu la toll <laughs> waa <laughs> <laughs> sëñ bi li nga wax teg ko suuf na ko sëñ bi li ngay wax teg ko suuf uncle ben li ngay wax man dem naa foofu xam nga moo tax nit buy wax day wax lu xam ah moom nag borom xam-xam la ah boo xam ne euh, ci li mu xam mi ngi koy wax. waaye hmm. ñun tam nañu wax li ñu xam. kese boo ko defee keneen ku ñu déglu tamit wax li mu xam li ci gën yàlla moo ko xam hmm, yàlla nañu ko yàlla defal ñu jëf ko. topp cere cere kii laa xam. Hmm? cere fonde. cere cappuccino sax ba ma commencé naan yàggul. <laughs> maa ngi euh, nuy monsieur le maire de Yang Yang Mouhamed Sène mi ngi mi ngi ñuy topp biram seen ñaari at la fa def ñu ngi koy ziar baax non benn mandat rek la fa bëgg nag. ah ok waaw bëgg na bëggaat na biram <laughs> da ngaa gis ko maire bu def at na dëgg nga ne koy na gën a est-ce que boo dundoo ñaar. benn maire bu ma sa wax wala dara ku bëgg wax man pare naa rek mu dëggu ci moom après ñëwatu. ah mën naa am Sénégal dañoo ah. bëri waaye man de dégguma. maire moo xam lu mënti doon maire la ministre la xëy na sax man moom ministre moom mën na parce que comme nomination la mën nañ laa woo. Mm-hmm. nga décliner. Mm-hmm. te duñ ñu duñ ko xam. Mm-hmm. mais kuñ fal daal ba kii rek nga ne man daal wax dëgg yàlla moom wax dëgg yàlla fal gi doy na li ma waroon def def naa ko. bëriwul bëriwul waaw bëriwul moom. bëriwul naa mu am te yëguñ ko biir man démission kenn rek laa mës a dégg mu def ko. l' président de l' assemblée nationale. Amadou Seck ah waaw moom rek laa mës a gis waaw moom rek laa sa a gis dégg si fàttali bokk. wala ndax miin naa ko. di nga fay jaar. waaw waaw yow yow miin naa ko kay ah, xam naa ko de. mu ngi am ay développement. <clears throat> non Jolof moom développement amu fa. gis nga daal la fa développé mu ngi diggante liggéey rek daal. gis nga gis nga boo boo waxee yaa ngi mel noonu rek sax sama xel day dem ci li ngay wax naan tourisme local xam nga tourisme religieux saa ñu koy wax mais tourisme local bi xam nga boo nee Yengeng c'est l'ancienne capital de Jolof. tey boo demee mhm. lafa fa tubaab yi kii yoon yëpp te jàng ko yow. Mhm. du ko mais boo xam jàng ko si mhm. histoire boo fa demoon tata jàng fa boo demoon yeneen nag yeneen nag yeneen ak lu fa Touba liggéey yëpp Alboury Ndiaye giri giri yi doon kii yooyu yëpp da nga ko fay gis. mais léeg-léeg ñun ñun ñun ñun mënoon nañ créer benn site mais ñun bi ñu juddoo yàggut mhm. mais da nga daa gis ay tubaab yoo xam ne dañu doon def déplacement de dem foofu defaraat ko mais duñ ñun duñ fa am ñun sax ñi nga xam ne ñun ñoo doon jógee ci seen dem di jànge bu ñu daa ñëw ci tata bi am na tubaab yoo xam ne fa lañ doon daal ñoo daa togg bu ñu daa togg ñun bu ñu daa wàcc gan fa la ñu añee mhm. dañu doon may añ xam nga nag il ne faut pas tout de l' état xam nga loolu loolu mhm. euh, mhm. du la laaj dara li muy def ci cours nii nga ne ko caméra ngi nii ma ànd ak yow ñu dem yang-yang mu naan la tata bi nii la fekkee woon nii la nga def ko reportage di ko teg c'est contribution xam nga ñun dañoo bëgg rek am boo ne développement nit ñi dañuy xalaat ne ministre yi fa ne gouvernement fa nekk lan la def mais doomu dëkk ci dëkk ba lan lañ def ci dëkk ba ça aussi fait partie du mooy développement sax il faut pas attendre que nommé nañ ministre lan la fa def ba mu dikkee lan la fa dikki je le dis et je le avec fierté mm-hmm. su ma sañoon nit ku ne mm-hmm. def li Aly Ngouille Ndiaye def clim mm-hmm. ci Jolof wala nga def li Aly Ngouille Ndiaye def Linguère ci Jolof pas ñëw di xëccoo daara ñëw di xëccoo Linguère man yërëm naa le maire bi ñëw Linguère après Aly Ngouille Ndiaye dëgg la très et je le dis de manière très su ma sañoon tey man ma def mboy naan la Aly def clim Samba Ndiobène def la Aly Ngouille Ndiaye def. Euh, bulal man Samba Ndiobène bu nu ma ko dëkkal daara. Hmm. bulal laa ko xam. Hmm. daara politique moo ko fa indi. maintenant suñu nekkee ne maire daara naf def la Aly Ngouille Ndiaye def daara. Hmm. et que le maire de Aly Ngouille def plus que le maire qui vient après Aly Ngouille Ndiaye. def plus. que ne def la Aly Ngouille Ndiaye def Linguère. parce que Linguère est la capital la capitale départementale c'est vrai que nag am na euh, lu mu gañee ñenn ñi. mooy capital la mooy à part à Louga soo dee wax Linguère ngay ñëwaat dem dem Kébémer donc am na lu mu leen gañee ci côté administration mais am na loo xam ne di jotewul dara ak administration bi mais gouvernance local bi moo ko fa def doomu dëkk ba ñoom ñoo ko fa def j'aurais bien aimé waa daara au lieu ñu ne fii xëccoo ku koy nekk ak kuy remplacer diw ñu ne diw mu nekkoon daara lii la fa def et c'est une fierté ñun mooy xool may jàng am na koo xam ne je crois que employé rek la woon mm-hmm. mais c'est une référence à à Daara mm-hmm. station Total bi ñun ba ñuy jàng lu ñu ko daan tuddee mm-hmm. station Babatal ne serait-ce que ma fa daan liggéeyee doon gestionnaire bi je crois à l'époque référence la woon ci foofu même su fekkee nekk il n'était pas l'investisseur ñu ñu lañ daan wax station Babatal j'aurais bien aimé tey ku nekk ci sa dëkk Kambak war xoox ak gulum ak doojeeg njarnoog mboy naan ku nekk bu ñu fa demee ñu ne waay seen seen doom ja nekk fële moo fi def lii gis nga état buy ñëw di la am na ñu fa def dara dañuy kontaan si loolu. Mhm. Ali parfois bu ñuy boo koy wax li ngeen def naan. j'avais un contrat avec Macky Sall parce que bu ñu ñëw damaa gëstu jolof lan mooy seeni mhm. soxla mhm. ma ne ko lii laa bëgg. j'aurais bien aimé tey ku ne yor un projet du jolof. jolof ngeen wax nag moo tax mais ce serait la même chose un projet du Saloum un projet du Kajoor parce que problème bi c'est pas am dak am xaalis ñëw dakaar dëkk fi même boo juddoo dakaar sa xel gis nga booy yi juddoo Dakar wala ñi yàgg Dakar te seeni papa ak seeni yaay bokk jolof mm-hmm. seen yitte yëpp mooy jolof mm-hmm. seen yitte yëpp mooy saalum mm-hmm. seen yitte mooy seen origine ba ñuy xale fa la ñuy football ci exemple bu ñu màggee bu xale bu football passé bu gàmm jotee bu tabaski jotee papa yaay dañ leen dajale yóbbu leen ñu dem gisi donc loolu bu la yàlla mayee tuuti je que kenn ku nekk dans le développement local war nga ko faa jiim léegi nag le développement central mhm. moom la mooy accompagnement bi la état mën a indil mhm. mais état bu ñëwee boo xaaree lépp mu defal la ko mënut a nekk mhm. kenn ku nekk fa nga nekk yéen waa gox ba yéen a cay ne ba keneen ku leen di dimbale partenaire lay doon collaborateur lay doon ak lu mu mënti doon ngeen def ko mais bu ñu toogee fi ne mais a pas de développement mais sur yang arrondissement bi daara la ne woon hmm. ñun bi ñuy jàng l'arrondissement de daara était à yang l'arrondissement de yang yang était à daara siège bi absolument loolu infrastructure la koy waral hmm. Hmm. alors que ki war a intervenir gendarmerie bi war a intervenir ee daara bi war a intervenir mooy naan jógee daara balaa mooy ñëw boobu mooy dégâts am or su su déggee jógee daara fi fi kii bi nekk tey dix minutes mu ñëw mbooy naan te lu tax amu fa woon c'est parce que infrastructure amu fa woon tey communauté rurale bi bi mu ngi fa loolu mooy loolu la état war a def. Mhm. fexe ba yokk école yi fexe ba mu am lycée. fexe ku ku amee ku jàngee mboy naan ba am entrée en sixième. Mhm. doo dem mbëllëxe. fexe ba mbëllëxe am lycée mhm. am na d' abord. fexe ba zone bi maanaam daara am université. wala département bi Linguère am université. nga xam ne da ngay jàng ba ak benn niveau bi te doo xam sax fuy Dakar. léeg-léeg nga gis un napolitain moo am 40 ans 60 ans nga ne ko Milan mooy la fu mu ne. ci télé bi rek laa koy dégg. parce que fa ngay dem dafa am soxla bu la fa yóbbu. soxla boobu boo ko trouvé fi nga ne wuti woo fa dara ñun ñëpp teraangaa ñu indi ndakaaru jógee ndakaaru dem Europe teraangaa ñu fa yóbbu mais teraanga boobu bu ñu fexee ba góor góorlu ci localité bi ñu ne état boole ñu dimbalañ ci localité bi ne ñu wuti partenaire privé para yu mënti doon dimbali ñu dootuñ jóg di ko so soxla soxla ji yow la leeree na man jaareetu bu ko leeree na bu xëyee dugg ci néegam am na internet am na téléviseur télévision ma jàng alxuraan ma ngay jàng diineem bu ñëwee Dakar lu mu def bu toggee taal kilim mhm. fas bu génnee la muy bëgg ay fas gis na fas bu mu war dawal talut sax bokkaay kaay dem Dakar sax da koy soof mhm. mais su xoolee li muy soxla ci environnement yëpp amu mhm. day ñëw la yóbbu ma gendarmerie ma dem inscrire dem defi jàngi fas alors que fas yaa ngay taxawaalu mboy naan te doo ci fay dara boobu mooy dañ lay war sax àndal ak yow ba nga sonn naan wàcc ma ma ñibbi nga ñëw fii dafay quinze mille francs pour mu dem gendarmerie ñun ñun la c'est à nous d'abord de chercher le développement local et maintenant demander l'accompagnement loolu nag moo manqué parce que tout est politisé mm-hmm. mais ne ku nekk ku ñu falak ku ñu falu mm-hmm. góorgóorlu def bañ ne ah moom sax jéem na même mm-hmm. boo defut nag moom danañ xam ne commencé nga keneen nit dana mën a jaar jaar ci ay traces ci li ci ngay def mais ku nekk na gérer d'abord avant le développement global général ku yàlla may delloo defal ci dëkk bi mais defal fépp EDK seen dëkk du def na fa station. xam nga ne station boobu du produire kii. oto yi boo dajalee yëpp fa nekk yëpp ci oto. mënuñoo xëy jël cent cent litres de carburant. mais jëmm la exemple la dafa rafet. Mm-hmm. ñu ne ko moom EDK yi ñu ne waa moom EDK bii moo ne seen kër. seen def na seen EDK seen kër. Mm-hmm. voilà la fierté en fait nit ki dafay identifié wu ci li muy def. Mm-hmm. boo ñëwee gis ab station leer na ne defu ko fa pour koom-koom. xam nga ne fa mu def station boobu yaakaaruma ne ma ngi cay gagné cent euros. parce que oto buy jógee daara yem nga ba fees buy jógee Linguère yem nga ba fees da koy romb wéy mhm. par accident nga fay paan jaar fa jël fa 2 litres dem su fa defoon a fast food boo muy lu mu fa togg dana xam mhm. mais liñ ñorle boo fa jaaree mhm. mooy soow boo ko jëndut tey suba mu weex ba mooy ñu tuur ko usine dëkk gi prof fa defa ngi fi di dee développons nous-mêmes nous, nous avant de dire à l'État. Et mm-hmm. que l'État euh, nous accompagne. Que, que, que, question question question bi nga wax Souleymane. Mm-hmm. dina dina dina dina jur lu bëree bëree bëri bëri. Mm-hmm. Euh, Demba bu ko EDCAO maa ngi koy ziar baax a baax euh, mais dafa am loo xam ne dina jur xam nga mm, benn góor dafa doon wax nga nan la ñuy mesurer maanaam nit ki bëgg-bëggam bi bi mu am par exemple buñ ne buñ ne Jules Khary bëgg na ñooro ñu ne ñu ne moo gën a bëgg ñooro ñu ne lan fan nga mën a sukkandiku ba wane ne moo gën a bëgg ñooro cest baat bi nga xam ne dañ koy wax naan dëkk ci dëkk bi dafa dëkk bi moo gën hmm. am na ci ñoo xam ne ñi tey par exemple tey mais ñu ci dëkk bi mais patro li muy wax ci ministre Aly Ngouille Ndiaye mais loolu mën nga ko xëccoog moom lu ne mën nga ko wax moom lu ne ba da ba ne da koo gën a bëgg jolof loolu munut am mënut am fenn fenn fenn fenn parce que da koy waxe da koy jëfe da koy wax da koy jëf loolu nag kooku mënu kooku lu mu def sax moom day jàpp ne deful dara mais bu fekkee da ngay woote jomba ñaaw boo woote jomba ñun ñëpp xam la ci àdduna bi yëpp kenn ku ne di la xëccoo waaye dëgg dëgg nag bu ñëwee ba ci yow waruñu turaani bu ñëwee ba ci yow war nañoo xam ne que au moins que kii li muy woote mi ngi ci moom moo tax moo gisee boo gisee dañ naan la fal la sa mbokk fal la moo gën Macky sàll fal la wala moo gën njiitu réew fal la tuuk ci gàttaw gàttal. Mm-hmm. parce que njiitu réew fal la. mën na laa fal foo xam ne mais fa nga fa nga bokk ñun ñi fal la dafa am loo xam ne li moom la moom moom la moom la gi lim def clim ak lim def feneen ci biir jolof man dama koy wax chaque fois lim def leneen ci biir jolof tey amul kenn koo xam ne ki tey mën nga taxaw ne au moins gën nga ko bëgg wala def nga lu mel ne li muy def amut du ma wax ne man nag gannaaru kenn ni nu ma de aussi du ma ko wax. gis nga lu ma lu ma li ma gis. dama koy wax gis nga la l'ancien maire de Daara le premier maire de Daara mais il n'est pas de Daara te pourtant fu la juddoo c'est un Libanais. tey la lam fa def moom lañu fi peinture ba tey. Hmm. est-ce bu ñu sukkandiku woon tey par exemple pour dire simplement ne am na ñoo xam ne ñu tey dañu sukkandiku si yenn non sa waay mi dëkkut fii sa waay mi dëkkut faa kon wartu mën a xëccoo fee waratu mën a xëccoo fee loolu sax en général dañ naan boo amee fenn kër yenn yi mën nga mën nga fa mën nga faa xëccoo pour jiite fa. <laughs> comme Assome Diatta. ah Kër Massar. comme Assome Diatta Kër Massar. <laughs> Ah, ah mais kan moo gën ci ñoom kan moo gën ci askan wi pour man war nañoo gën a mën a sukkandiku foofu est-ce qu'on n'est pas non plus en de confondre dëkk fi ak bokk fi. Hmm. c'est-à-dire d'habitude dëkk fi mooy koo xam ne am na fi kër. Hmm. mu ngi fi. waaw muy dëkk. xam nga mën nga fee bokk te doo fi dëkk. waaw waaw man mën nga fee bokk. waaw fee doo fi dëkk. waaw mais mën nga fi dëkk. Hmm. bu bu boo jëlu nag territoire Sénégal naan fii territoire Sénégal ñëpp bokk nañ fi. waaw waaw je je donne un exemple. Alioune Sall. dañoo jàpp ne c'est un maire importé. maanaam dëkk na dakaar dëkk na Fatick. mais bokkul Guédiawaye. mais est-ce que duñ xool li mu def géejawaay. très bien ak ñi dëkk géejawaay. la xam nga def nañ ko. waaw mais man li ma d'accord nag moom. mooy bala maa tabax fenn dama wér dama yaakaar ah. mën naa juum que Aliou Sall bu amoon lu mu def Fatick du am du ñëw géejawaay dafa amul place. benn hmm. politiquement nag mën na ñëw géejawaay. Hmm. parce que c'est le frère du président il est de l'APR il faut il faut pas le nier parce que ku ko bañ rek bañal bañal ne Karim Wade du doomu Wade. Hmm. pour beaucoup de facteurs nekk na maire de Guédiawaye te mm-hmm. mën na nekkaat maire de Guédiawaye mm-hmm. nekk maire à l'association des maires du Sénégal mm-hmm. le fait d'être président de frère du président bari na ay désavantages waaye am na ay avantages moom xam na si dara mais bokk ci dëkk bi ak dëkk ci dëkk bi yaa a une différence nit mën na nekk maire ci dëkk bi c'est parce que bëgg na dëkk bi xam nga nit mun na bëgg fenn ba ne fa am wut fay ndombay tànk ba am ko ndax bëgg gum bëgg terroir bi Moussa fu mu juddoo Moussa Ndaw Balde si. suñ correspondant Ziguinchor. non mboy na. fu mu màggee. Hmm. Ndakaaru fu mu jàngee Limaamulaay fu ay parents dëkk tey Kaolack Ziguinchor ko gën a lu mu a am. Hmm. il a réussi sa vie à Ziguinchor. Hmm. il est presque boo ko gisee sax dangay defal Moussa Ndaw ma nga xamoon Joolaa sax la gën a niru léegi ci wolof. dafa am loo xam ne li amour de la patrie ak ña nga fekk ci dëkk ba luñ rapport bi nga am yow ak ñoom. parce que y' a rapport de la nature avec la personne. Mm-hmm. il y' a rapport de l' environnement des habitants avec la personne. Mm-hmm. ba nit ki day nekk loolu. nit mën na nooraani ci dëkk. Mm-hmm. doon fa nooraani ba faf fa jënd kër. ngir neex gu ko neex dëkk. doon fa nooraani maanaam exode rural. Euh, ba faf fa nekk. un citoyen ba faf fa nekk chef de quartier. man fa nekk maire mais xam kooku bokk na bokkoo fi dëgg la parce que boo waxee moom def naa la man dem samay origine nga mais ci dëkk bi la dëkk li bon mooy importer nit pour cas électoral su jeexee bu élection yi jeexee mu dem ñibbi mën na fa jënd kër nag waaye boo muyit mu jaayaat ko wala mu luye ko wala mu def ko neneen waaye bu ñuy paree rek muy dem yoon ana kër këram Karim Wade bu dul kër Abdou Abdoulaye Wade ci dëkk bi yaakaaruma ne kër France gi ñu ne kër Karim dafa bokk ci bokk ci li nga bokk ak indi ko pour des fact ay facteurs mm-hmm. léegi nag nga dëkk fi ba pare bokk fi commencé fi defar mm-hmm. munuñ ko maanaam loolu lañ mën a du ba fet loolu laa mën a tuddee yëg mm-hmm. nit ki nag maanaam ma ngi defar lu mu bokk loolu du loolu du tagg contraire bi mooy aw xas maanaam ca la mu defar la mu bokk moom dara defaru ko ci loolu mooy aw xas mais Sénégal dañu baaxoo ne da ngay nekk ci dëkk bi comme ni nga waxee Kaaw Moussa Ndaw Euh, di def lu ne euh, dëkk si dëkk mais su yëkkati woon tey ambition politique mairie wala dara gars yi commencé sulli. waaw ne dëkku fi dëkku waaw mais loolu la dama ne politique. loolu mooy problème bi maanaam maanaam l'acte politique. xam nga ñun li ñuy wax nii ce n'est pas wax nii. fa juddu waroo faa laaj dara. Hmm. waaw mais ma ne loolu dama ne acte politique. Hmm. na am nit ki mën na faa bañ a juddoo. Hmm. maanaam ci la lam fay def. am leen. par exemple Moussa Ndao am na c'est un cas que j'ai pris que c'est un cas dama xool kii wam parce que musaa Ndao am na ay sportifs yu mu gis yu mu fekk Ziguinchor. Mhm. am na ay chroniqueurs ay journalistes yu mu fekk Ziguinchor. Mhm. tey la nekk ci lay tourner autour du sport à Ziguinchor. Mhm. am y' a pas discrimination contre Moussa au contraire da ngay gis Moussa Ndaw au devant de la scène. c'est-à-dire que sport bi ak politique bi ak leneen ñoo rimé. li nit ñi mën nañ laa bañee dara mais mën nañ laa bëggee les faits positifs yi nga xam ne moom ngay poser ci dëkk bi. li li ngay wax nii xam nga lan moo koy mooy ku ñu imposer. Ous euh, euh, Ousmane Tanor euh, sax tafur la Ousmane Sonko. Mhm. ñu xam ne Ziguinchor la bokk. Mhm. bi Pastef juddoo la. Mhm. ñi ko xam. bi Pastef juddoo par ak les élections bi mu gagné ci lañ xam la détermination discriminatoire de la partie de Ziguinchor sur sur sur Ousmane Sonko. parce que contre nañ lañ koy teg mitit bi ñu koy teg. te moom bi muy wax ci waxam da déglu ne. pour calmer buggul wax Ziguinchor daf na man je suis le prototype sénégalais maa nga juddoo Thiès maa nga jàngee Ndakaaru ma pour jàmmale nit ñi ne mbir mi benn la mais boo bëggee imposer nit ñi li ngay wax nii mooy le fait qu'on impose un candidat aux gens parce que xam nañ ne kii am na charisme bi am na nangam bi jege na parti bi am nay doole am na xaalis donc bu ñëwee pour le vote d'argent dinañ ko fa imposer généralement mën ngaa gañe mais doo gouverner ci jàmm soo fa dikkee nag yàgg fa hmm. defoon fa tabax doon fa euh, liggéey doon fa créer ay emploi hmm. doon fa dimbali nit ñi te amoo benn ambition politique bés boo taxawee ne ambition politique boobu mooy duñ ne la dëkkoo fi dina am ñu bañ certes parce que ils ont des ambitions comme toi hmm. mais le candidat imposé fait toujours polémique et malheureusement yi ngay wax ni c'est des cas des candidats imposés hmm. cest moom la ñu choisir parce que li parti bi choisir pour mu ñëw def ko parti bi moo am xaalis de l'opposition comme comme du pouvoir parce que ñoo koy soutenir dafa bokkul ak généralement nit ñi bëgg wala ki nit ñi bëgg bu fekkoon ku nit ñi bëgg rek koo koy dem kon kon mbir mi neex. Mhm. ñu noonu. Euh, ñu dem. léegi hmm? bulal ak kii nag le cas de Samba Ndiobé droit laaj mairie kii. non am na droit sax laaj bu Dakar. non bu Dakar moom aussi droit. lu tax lu tax lu tax mu koy laaj. lu tax kay laaj. laaj Cissé du mu ngi ci laaj Dakar. Cissé dafa changé kii. waaw mais laaj ko ah, dafa changé moom changé. est-ce que na waxagul changé na de. ah Cissé Lo de. Cissé Lo muy yàgg na. waaw mais léegi lu la. Ah, ak daara. fii kañ ñu naar tubaab ñu waxul doo ci doo leen xam ni. Souleymane <laughs> moom moo ko moom moo koy indi. kii laa def bu ko neexee jëm. c'est-à-dire que moi booy. mais instant bi ñu ngi koy wax. waa daara ñu ngi naan dëkku fi. ñu ngi yëg ci loolu politiquement xoolal am na ñu waa daara ñu naan ko fi nga dëkk. waaw ah. ni mu amee dëkku fi la am fi nga dëkk mm-hmm. maanaam ni mu amee def xanaa moom moo xam hmm. l'idée de pourquoi ma bañ a def bii hmm. war a def bii hmm. xam nga loolu moom rek moo xam la muy la la mu la mu la mu bëgg mais man j'aurais bien aimé sama sama sama interprétation bopp la xaw ma subventionnement xaw ma lu ci nekk wax na wax na daal émission daal mu ne bi muy politique boolal am na daara am na dafa dem tànn daara pour defee politique. waaw loolu xam nga choix la bu ko neex. nit ki moo xam li tax mu. mu tànn fii dem fee. Mhm. mais am na koo xam ne kii bureau euh, euh, euh, Jolof la dëkk ci misaal. Mhm. mais bu vote jotee Ndakaaru lay vote mhm. di dem Jolof vote ji choix la. moom moo xam choix man dama ne su ma doon conseillé dama ne. gox bu fi nga dëkk. commencé fi leneen loo ci dolli jën waaw loo ci loolu valeur ajoutée la. Hmm. Hmm. mais man c'est le choix moo doon Samba Ndiobène. Hmm. bu ñu ko waxee bulal maanaam Samba Ndiobène est une fierté de Boulal. comme il peut être une fi du Jolof partant de Boulal. man su je veux être une fierté du Jolof. mais su ma amee lu bés lu ma fier waa Jolof te fieruma ci waa Mboy naan bu ñu yeboo ma sànni. te yow bu la neexoon nga xëccoo dara. fa damaa ah. politique waaye ma neexoon ñëw tax na daara waaw damay woo Ramatoulaye Fall ne ko yaay sama directeur de. campagne directeur de campagne. <laughs> waaw gis nga ne ma nekk maire daara espace public. il n'est pas ah. exclu ah, ah pour nga nekk candidat maire de daara. ba xaar nañ dama nañ dox wóorul il n'est pas exclu de. pour nga nekk candidat waxaguma kenn dara de. du bii de. waxul bii de non bii ak beneen laayam la je n'exclus rien. non bii moom soo demee grand. gars yi dañ koy bi day métti n'importe bëriwul doo daanu non mais waajoo ko man bëgguma dem yóbbu mbër muy daan général nag généralement nag hmm. gaa yi waaju ñoo indi surprise la <laughs> les surprises mooy tul surprise ah généralement gars yi surprise day am de de na na naataa pas que Samba Diop naan ma grand yi xalaatuma woon nag na fii da nga ma fi da nga ma fi da nga jaar. da nga fekk ah. Ah, c'est pas exclu. day ñaar rek de na dem na nañu ubbi daal affaire bi mu yaatu rek. na na làmb la rek. waaw même su dinaa au moins dinaa ci mën a xam ndax man am naa daara ay militant wala du ma am ay militant sama mouvement laay ñëw teg daara nañ ciy xalaat nag léegi xam-xam yow foog ñuy waxtaan maa ngi yow il foog ñuy waxtaan daara ci laa bokk na ñoo sa chargé de communication fu mu xëy da lay galgal daara ci laa bokk am nañ ci déjà ci laa bokk daj léegi mu am Sénégal ci laa bokk daara ci laa bokk. gars yi nañ ci nañ ci bàyyi xel porte sa candidature ñu nekk président. nan nañ ci kii la rek. acca euh, <laughs> boobaa bul ñëw de comme yaa yaa ñuy ree man waaw yii man kay waaw maa ngi def leen rek. sama nijaay Guère Ndiaye. Guère Guère uh-huh. euh, Maguette Guère. Uh-huh. Arabie Saoudite mu ngi ñuy déglu euh, déglu ak di ñu seetaan depuis Arabie Saoudite ñu ngi koy ziar baax ba ak Ousmane Codé Fall. Uh-huh. am na solo. les échos les échos yi ne kay dafa daal di euh, des euh, ba tey ci lu daal di euh, jëm ci làquk xalif général bu Canaba di Serigne Abdourahim Seck ma nga génne àdduna fële ca diwaan bu Maroc ab néewam nag danañ ko daal di indi ni ki tey ci guddi gi yéen kaay bi ne Canaba ma ngay wéy di jooy ab xalifaam moom Serigne Abdourahim Seck nag ab koo xam ne kii daa sol aw dàllam di boole ñëpp ñuy waxtaan ak jubóo puso la woon da doon ñaw rek diggante yi. alxuraanul karim tamit euh, xaritam la woon liggéeyam tamit euh, ci euh, jëm ci yoonu suñu borom loolu tamit ràññewoon nañ ko ci lool loolu lay nag tax na ak demam nekk aw tiisu mag ki nga xam ne ki nag moom mooy rakam di Serigne Hassan Seck moom mooy koy daal di wutu ci xalifa bi yéenekaay bi daal di jógee Thiénaba ñëw ci Yoff Yoff googule tamit nag euh, gannaaw bay euh, Abdoulaye euh, Thiaw Laye ak dema moom itam nekk aw tiisu mag ndax dafa nekkoon ci xoli ñëpp li koy mandargaal bokk na ca daanaka boo demee ci këram turi xalif généraux yu bëri bëri danga nga ko fay fekk yéenekaay bi daal di cay euh, ñëwaat ak liggéey bu am solo bi nga xam ne bi mi ngi ko doon daal di euh, def ba ci taxaw bi nga xam ne bi amoon na ko ci wetu maître Abdoulaye Wade yéenekaay bi ne daal dinay dem moom Baye Abdoulaye Thiaw Laye euh, ki ko daal di wutu tamit di Doudou Makhtar Laye moom itam ak noppeem ak ak daanaka ak nëbbam yéenekaay bi ne bokk na ci màndarga yoo xam ne tamit nag xàmmee nañ ko wala ràññee nañ ko ko baax a baax moom nag moo nekk le xalifa général bu Laayeen. Mhm. ñu noonu. Vox Pop. Vox Populi xali euh, lu euh, jëm ci euh, ñaari xalifa. Euh, yi ñu daal di euh, jël ni ki euh, démb benn ba ca Canaba benn bi ci Yoff laa yéen yéen bi daal dina ci xëy ñoom ñaar ñooñu lay bokk na ci Mamadou Makhtar Ibnu Seydina Mandione lay ak Serigne Baye Hassan Seck ñoom ñëpp nag lañu ñu daal di jiital ni ki démb ca Cambérène daanaka fi ñu toll nii aw tiis dëgg-dëgg moo fa daal di am ni ki démb ndax ñëpp ñoo doon jaay ñoo doon jooy Baye Abdoulaye caw Laay jamook jamono ji nga xam ne ci tamit nag yéenekaay bi ne mbas mi mi ngi wéy di yokk ay jéegoom ndax fi ñu toll nii ni ki démb lu toll ci fanweer ak benn ci doomu aadama ñoo daal di ñàkk seen euh, bakkan euh, yéenekaay bi daal di nay wax ne benn fanweer ci weeru juillet 2021 bañ ko dooree ba tey fi ñu euh, toll nii nag lu daal di toll ci junneeg juróomi téeméer ak ak juróom-benn ci doomu aadama ñoo ci daal di ñàkk seen bakkan ci wàllu mbas mi ba mu dooree ci réewum Sénégal ak léegi waaye li ñuy ñàkk ay doomu aadama ni ki démb moom ba njëmbam si dooree léegi musuñ koo daal di ñàkk ab moodu moodu moo ñàkk bakkanam ci. mbas mi euh, ca Italie la ndax dafa bañoon ñu hospital yi ko hmm. di wax sol hôpital waaw du dëkk dëkk dëkk àddina la hmm? moo tax boo ci war nañ ci def ndànk Italie waaw yéen kay daal na ci euh, ñëw ak euh, forme sever bi nga xam ne bii moom la moom la nekkee woon waaye xëy na li tax nag mu bañ na kenn bu koo tëral hôpital moo ko xam lu jëm ci euh, Hissène Habré moom itam ay mbiram ak nekk mu nekk ci biir euh, kaso bi fi ñu toll nii am na ay kurél yoo xam ne dañu taxaw ak ak yelleef doomu aadama ñoom li ñu daal di bëgg mooy euh, ndokkuwaay wala rikk nag nañu bay Hissène abre mu génn ci biir kaso bi ndax ak wér-gu-yaram suutante na lool mag la tamit waaye kuréel yi nga xam ni ñoom ñoo ëmb ñi nga xam ne jàpp na ne Hissène abre moo tax seen i mbokk génn àddina ñoom neenañ du ca dal ànduñ ca tey ànduñ ca ëllëg muy génn ci kaso <clears throat> l'Obs observateur yi ne kay gannaaw lu daal di euh, jëm ci wàllu mbas mi ak euh, tolluwaay bi ab médecin urgentiste moo bind président Macky Sall nee na bu sañoon ñu confiner ndakaaru ndakaar dong nag di fukki fan ak juróom. 15 jours Aliou noo noo gisee xalaatu médecin boobu. jàpp ne ndakaar moom fi la cas ëppee. am man waxoon naa fii. Mm-hmm. bu ko jaree. Mm-hmm. nañ ko def bu ko jaree nag na am ay information yu. wér. Mm-hmm. yu wóor renseignement yaar ñu jël yenn mesures mais yaakaar naa démb ku déglu sa invité xam ne xam-xam am na am na ñoo xam ne bokk nañ ci bokk nañ ci ñu ñu mën a pré ñu xam fa fa fa fa wax ji jóge ak wax ji yanu maanaa ak wax ji yanuwul maanaa parce que nit buy wax te waxee xam-xam rek day yomb dégg ñun nag malheureusement dañuy xëy ku sol blouse ñu ne docteur on tend le micro à n'importe qui généralement on tend pas le micro même ki war a wax ki war a wax it euh, préf parfois day préférer publication comme li ko kii kii doon wax que ñëw ci wax ci yenn médias parce que am na ñoo xam ne ñi seen i wax bëgguñ média yàq ko wala mu dénaturé ko mm-hmm. donc dañuy préférer bindal ci seen loxo fañ ko war a bindee pour mu jëriñ am ñoo xam nag bëgg dégg leen mooy tax dañuy jëm comme micro yi léegi boo defee ñu indil la mm-hmm. taagal la ko pour buzz le mot laa yàq na Euh, ki war a wax daal bu dee médecin la et un médecin reconnu par sa corporation yaakaar naa ne waxam jar na bàyyi xel waxi médecin yi nag c'est science la rek nit ñi fa expérience am toll ak fa muy gisee foofu rek la war a jëlee mais nag bu fekkee ne dañoo toll ci ñu ne ñu waxoon nañu troisième vague baa ngi ñëw te jëluñu woon ay mesures ñu jël mesures yi ñu jël de leur manière ba mu indi lii tey bu ñu ne war nañ la jël mesures forcées lii c'est juste pour dire nañ confiner dëkk bi man je suis d'accord que li am daara dakaar bu mu am Thiès ndax commencé na fa bu mu am Ndar parce que dëkk yooyu ñoo am concentration mm-hmm. te feebar bi loolu la bëgg donc dëkk yi nga xam ne nii gis nañ ne forte contamination am na fa mm-hmm. mais nañ leen confiner bu ko jaree mm-hmm. mais nag nit ki ndoxul du bul génn confiner nit ki du génn ci dëkk bi teg fa gendarmerie du teg fa police kon de ñun dégg-dégg bi gars yi am ñenn ñi am ci confinement bi dem ne fii ñu toll nii ak canicule bii ñu ne. Mm-hmm. tàngoor wi. nit xalaatu fi confiné nit te joxoo ko lu jar lu muy confiné. Mm-hmm. te ndem ba vague bi jëlee ñu génne mill milliards yooyu te pareeguñ ci. Mm-hmm. lañ confiné wulul nit ñi bu baax waxuma laa tey. par contre mën nañ def ay mesures de restriction yoo xamante ni bu fekkee ne gouvernement bi man na. laa wax bu dee ne man na. te mi ngi koy tal. te mu jar ko ko talal ndax amu fi njëriñ beneen bu dul askan wi. na war a def benn mesure d'accompagnement yu strict et non des décrets ndax bu faxee ne fii ni ko jël masque ci mbedd mi à la loi yow ki ngay wax noonu loi ki koy war a contrôler gendarmerie bi boo ñëwee ci roxu bii nii suñu gendarmerie poste bi nekk fii mm. l'effectif n'est même pas suffisant pour mën a couvrir zone bi mu am fële la ñuy bi kii taxaw ci carrefour bii kii dem taxaw ci carrefour ba la ñu bàyyi oto ba mm. liñ mën ñi ngi koy def daw nañ ba sonn def nañ ba sonn mm. c'est à l'état de mettre les moyens li ñuy góor góorlu ba àbbi bu ñu góor góorgóorlu ko ba àbbi faj subbi mbubbi mbubbu mbubbu politique bi def ko ci askan wi bu ñu dakaar Dakar te joxuñu Dakar ay possibilité yu ñu confiné dañuy yokk coow yokk polémique yokk contamination da nga gis ko leen jaay bakkanam du ko jar mhm. su ko mënee nag su fekkee ne jor na fa nañ ko def nit ñi bu ñu xaar ñu confiné leen il faut pas aussi attendre que l'État nous oblige à des restrictions mhm. l'État ne meurt pas l'État reste sera toujours l'État par continuité c'est nous qui mourons mhm. donc ñun ñoo dul xaar ñu ñuy wax nu nii ngay def ba wér ñun ñoo war a góorgóorlu ci ki ñuy digal nu ñuy def ba wér ñu góor góorgóorlu ci loolu ak redoubler d'effort jéem a comprendre ba a diglu ki nga xam ne dafa defe ne bakkanam lay waxee wala bu yàq waxee mag yàqule mag bu yàqule ñun ñëpp a yàqule kenn du mucc ndax mooy mooy moo yor locomotive bi mooy yor gaal gi donc kenn waru taqaar ay restriction dañoo war a commencer ci sunu bopp ay restriction ñaan ci ñi ko man mesure barrière ci ñi ko man mooy li fi tane dana tane yu fi mesure barrière mm-hmm. nee ñu woon ku ku wu mm-hmm. ku vacciné am Covid léegi kon vaccin bi lan la képp ku yaakaaroon ne vaccin bi daf lay aar vaccin bi aaru la ci doo am Covid da nga am Covid peut dana sa sa sa yaram dana développé ay anticorps xaw ma nu ñu koy anticorps ou anti Covid. Mm-hmm. yu mën a xeex ak feebar bi boo mos nga résister par rapport ak kooku. Mm-hmm. mais nañ góorgóorlu ci dem leen vacciné wu ji dem leen nga vaccin parce que moo ci tane lan li utiliser ba réussir nit ñi ci meeting buñ ko utiliser réussir nit ñi ci vaccin. ne serait-ce que nañ vacciné ji nañ vacciné nañ vacciné ji waa militants yi bokk j'aurais bien aimé chaque parti politique ne place bi deux cent deux cent deux cent kii lay jël deux cent ah, deux cent personnes lay jël ñu jël vingt cinq pour cent yi ñu ne tey cinquante personnes rek ñooy dugg ñoom ñëpp nañ leen vacciné ku yor sa carte Pastef bëgg naa tey nga jël vacciné ju ku yor carte APR bëgg naa tey nga vacciné wu ji au moins on aura vacciné 3 millions 500 parce que 3 millions 500 3 millions inscrits lañ am mais li ma dégg ñu koy waaj ñu koy ruumalaat ku ko ci teg maanaam boo ñëwee ci révision yi gars dañ lay wax maanaam fu ñuy def kii révision nañ fa jéem a teg benn kii de vaccin mais c'est pas une obligation c'est nécessaire nañu bàyyi waxu càmbal maanaam bu fekkee ne lu ñu nar a def la buñ ko defi le vaccin n'est pas une obligation mais ku ko mën ko ku bëgg jàmm defi ko xel la ndimbal la mais ni ñu góor góorloo ba ba ba ba defi révision yi ba defi ay commission ba mën a sàcc ci dëkk ab commission waaye nañ fa sàcc commission buy vacciné c'est-à-dire est-ce que est-ce que ñun dégg nañ wala ñu ñuy wax dana ñu dégg. loolu ñu hmm. xel yi ni mu baaxee ci jàq yàq nañ ko góorgóorloo ci defar. Hmm. suñ ko defee mën nañu avancer mais on est fertile. très rusé à faire du mal te ki ngay defaral da nga koy yàqal ki nga yaakaar na yow da nga koy def pour defaral ko danga koy yàqal. Mhm. nañ góorgóorlu ci loo xam ne daf ñu yóbbu ñu ñu defar na ku nekk jàpp ne restriction bul ko xaar ci état nii le ministère de l'intérieur nii le président de la république nii le ministère de la sante defal ay restriction ci sa bopp bul dox dox bu amul fulla bul fi daje mbooloo mi ci lu dul farata du sunna bu ñu demee ba nit di am dëj te mënuñoo jaale ji ak li nit di nit dëj mel soo demee ba sa mbokk gaañu ngay dem di ngalab sa bopp léegi li nga wax sax mu ne dégguma la ah maski yi dee tax xaaral ma teggi masque bi wax ko defaat mais duñ góorgóorlu ci lu ñu fi jëlee ci masque lu jaru xaar état nañ ci góor góorgóorlu nun état na def li mu war a def mais nañ ko accompagner aussi ci loolu. Mm-hmm. minu en tout cas loolu mooy euh, càkkutéefu docteur Cheikh Omar Thierno Comé ci euh, njiitu réew mi bataaxal bi mu ko daal di jëbal na ko daal euh, gis na ne téer boo jël daanaka lu ëpp juróom-ñett fukk yëpp. ci ñi am mbas mi ndakaaru la ñu nekk mu taxit mun a daal bu ñu euh, tëjoon ndakaaru rek fukki fan ak juróom euh, yàlla mën na cee def jàmm loolu la jàpp ne mooy solution bi fi ñu euh, toll nii Alioune Badara Cissé moom lan mooy solution moom mi fi nekkoon médiateur de la république bokk ci membre fondateur yu APR gannaaw ab mandaam ba mu jeexee ci bopp médiateur de la république moom mi nag fi ñu toll nii yéen kaay mu ngay xëy di laaj naan fi ñu toll nii ëllëgu politique am lan lay daal di doon ndax day wéy di des ba tey ci biir APR di def ay yëngu-yëngu politique am euh, wala dafa am beneen taxawaay wala sax dafay jógee bay politique en tout cas professeur Moussa Diaw jàngalekat ci wàllu science politique ci université Gaston Berger bu Saint-Louis la mu daal di euh, jàpp mooy maître Alioune Badara si bu bëggee am ëllëgu politique gu nit ñi bay xel day wan gannaaw APR berdaaram hmm. waaw dem ak boppam waaw waaye place ba mu amoon ci APR moom nee na mënu koo amati. Hmm. en tout cas am na mouvement bu bu rëy bu koy bu koy jàppale. waaw ABC e waaw. jàgg na nag waaw place bu mu amoon daal. mënatu ko am APR mënatu ko amati ndax loolu nga jàpp. waaw comme professeur Moussa Diaw nu mu ko gisee Alioune. ah déet xam nga li mu jàpp moom moom moo. xam ne xalaatam la jàngatam waaw man place man yéen a bokk xalaat man nag su ne woon damaa place ba ma amoon APR. laay wut si. waaw man moo gënoon sax euh, kii la laa doon gën a dégg. Mhm. que ba ma amoon APR mënatuma koo am. moom nag bu fekkee moo ko wax laa wax de. Mhm. bu fekkee ay waxam. Mhm. moom moo xam li tax mu wax ko. parce que moom moo xam lan la fan la toll APR ak fan la ko APR toll. Mhm. par professeur Moussa Diaw professeur ah, que vous parlez de ABC. Ah, non non pourquoi je je crois excusez-moi mais mais mais yàqul mais xam nga nit ki maanaam su ma ne. Mhm. place bi ma amoon fii mënatuma ko am. Mhm. yaa limité sa bopp. man dama jàpp na ku ne ci parti politique. amoo limite maanaam fa nga toll. parti bi foofu la la parti bi toll. parce que dafa am un chef de parti. am ñu ko gën a jege et généralement ñi ñu gën a considéré sim parti mooy ñi tekki dara ñu baal ma ci waxin bi mais ñi am mbooloo parce que politique ku koy wax mbooloo moo tax quand on parle de politique on parle de statistique et yi amoo koo fudul bu vote jotee kan moo gañ a fan ak ban nombre su fekkee ne nag natt nga sa bopp ba gis ne fii parce que li tax mënoo koo am ci parti bi mooy gox ba nga nekk mënoo ko fa am parce que le résultat dans le parti li nga tekk ci parti bi bu fekkee yaay leader ci gox ba nga ne bu nu votee yaay gañe soo woote bu ñu wotee say mbokk say gaay fay ëppale pancarte yaa ko yor bu ñuy cotiser say gaay yi cotiser bu ñu jaayee carte ñoom ñooy ñëw bu ñu réunir ñooy ñëw bu mouvement amee ñooy ñëw bu bu lecture génnee ñooy ñëw bu xeex génnee ñooy ñëw foog nga tekki dara boo nekkee anomaa toppee nag boo yóbboo di fëgg gaay yi dem ñu taxaw ñu jël ko am na ñoo xam ne ñi ci parti bi ñoom apprenti lañ dañuy mm-hmm. fëgg rek mm-hmm. oto bi dem ñu yëg mm-hmm. bu ñu wàccee ñu wàcc bu ñu yëg bu ñu dem yaay natt sa bopp nag fi mu ci toll rek parti fi mu ci toll rek la toll ci yow parce que lu du gagné le parti n'a pas besoin de de sa carte yaa président de parti ah, gis ñoo xam ne ñii euh, am am na am nañ doole ci parti bi lool gisuñu lu ñu def peut-être am na koo gis moom mu jiite mais dañoo xëy xëy na leen yalbandi moo ça dépend si non dañ ci réew mi non ci ci parti bi ak ci non loolu laa wax dama ne yalbaan ci réew mi ak mm. yalbaan dañ ci parti boobu. je je je je dama jël ay kii dama jël ay ay exemple su fekkee ne sa jàpp naa sa idée. Mm-hmm. am na ñu bokk ci parti APR. ñu génne leen ci gouvernement. mais yaakaar naa ne lañ tekki ci APR lañ tekki ba léegi. Mm-hmm. parce que rien ne dit ñàkk nañ seen. pouvoir ca APR. Mm-hmm. am na ñu génn ci APR c'est pas pour des raisons de parti ou de position du parti c'est des positions d'idéologie. loolu local lañ koy xam. très bien maanaam léegi nag pour ñu xam ñoom génn nañ ci parti mu génnul ci parti dañ dem ci élection yi mais liberté d'expression bi am ci biir parti mm. si ñu si on tey parti parce que il faut parti bu la fi ëpp coow dafa tekki dara mm-hmm. absolument parti bu amut nit kenn du ci wax ko li bëri wax wax yëx ci parti bi c'est parce que le parti a des militants mm-hmm. c'est parce que le parti a des fans c'est parce que le parti a des a des a des a loolu mooy tax coow li am et que ambition yi fokk mu am mu am télescopage kii bëgg fii kii bëgg fii kii bëgg fee ku nekk ñëw ak say militants mais wax ci parti bi mën nañ la génnee mën nañ la génnee dans l'attelage gouvernemental mais mën nañ la bàyyi ci parti bi on sait jamais que ñu génn ci parti mën nañoo dellu si waat ëllëg dans le même cas ñu nekk ci opposition ñu bàyyi parti opposant jam ci beneen opposant am na c'est parce que peut-être ci parti boobu lañ doon xaar amuñu ko fa wala considération ba amuñu ko fa wala tekkiwuñu fa lu bëri wala gis nañ yeneen forme yu leen fi indi mm-hmm. mais nekk ci parti moom jàppal na ni nga toll ci parti bi noonu la parti bi toll ci yow mm-hmm. ya je ne crois pas un parti politique buy rejeter un boo xam ne bi am nay am na mbooloo mm-hmm. yaakaaruma ko parce que mbooloo rek lay wër mi ngi noonu ci enquête ñu jàll ci enquête euh, yéenekaay moom li mu daal di euh, xëyee mooy nañu wax nag ci transfert directeur yi fi mu toll daanaka mi ngi mel màlle waaw transfert directeur yi moom <laughs> Euh, gaañ yi gaañ gaañ yi gaañ yi gaañ song nañ ko dëgg dëgg dëgg euh, loolu lépp nag ngir say gaay bindu ngir ëllëg bu ñu demee ca wote ya euh, nga daal di cay mën a am yaakaar ñan joxoñ baaraamu tuuma nag ci jëf ci jëf yooyu mooy maire yi. Mm-hmm. maire yi daal moom la ñu moom lañ ñoom lañ ci joxoñ baaraamu tuuma moo tax it nag gouverneur bu ndakaaru génn bataaxal nee na loola na dakk teguñ ci yoon tey teguñ ci yoon ëllëg di xëcc ay nit rek di leen bindu la wala commission yoo xam ne teguñ ko fenn. wala léeg-léeg kay certificat de résidence ak ñoom seen. bañ ko joxe. waaw loolu lépp euh, waaye nag lii mënuñ ko mënuñ ko bañ da ca fay moo ko waxee moom noonu la neen daal li fi maire bi mooy maire ba pare di doxal di nekk ci commission ba pare di àtte mbir yi nii nii rek la mën a demee. juge et mun a doxal lu baax waaw mu ngi noonu. kon nag koo am ko mën a yóbbu ñooro yóbbul ñooro boo ko mën a jox certificat de résidence boo ko mën utal utal ko ko. mi ngi noonu. mais mais mais maire yi amuñ droit aussi bañ a joxe certificat de résidence yi. kan si. comme ni ko gunee di euh, di jooyee. dañ ñu bëri dañuy dem mais duñu leen. waaw xam nga maire boo xam ne bii ti par exemple da ngaa nekk ci gox. Mhm. tey ci démb ci guddi ba tey ñi ma ñi ma koy wax cas bi bu gën a récent bi mooy fële ci Carñi commune Carñi. Mhm. ah ca euh, maam ka ñoom ñeent dawlu ka ñoom ñoom seen ñi nga xam ne ñoo fay def politique mhm. mais tey bu fekkee ne même yow da ngaa nekk maire tey amu droit waxuma moo am foofu de. foofu coowal certificat de moo si am euh, yoon yoon yoon yoon jël le dossier mi ngi mm-hmm. mais dama bu fekkee ne par exemple da nekk maire certificat amul couleur parti politique amoo ne damaa farfe wala damaa farfe boo ko soxlaa dañ la ko war a jox boo jaaree fa nga war a jaar. Mm-hmm. ak foo mën di far boo faree ak la boo farul ak maire xam nga nag gox yi nag communes yi dañoo ndaw tellement que yow da xam ñi far ak yow ak ñi farut yow. léegi nag boo jàppee ni yow ku farut ak yow booy ñëw nga koy galgal ni du am certificat de résidence. wala lu mu sàkk sa commune ba nga xëpp si wala nga teg sa tànk mais loolu tamit bu ñu ko bëggee xeex faw ñu xeex ki nga xam ne kii par exemple tey mooy la maire bi nga xam ne bii moom yaakaar ne la mu fay def lu ne ku farat ak mhm. loolu kese la commune yu bëree bëree bëree bëri tey li ngay gis nii gën chef yi ngay gis nii ay maire léeg-léeg da ngay ay maire yi toog ni ñin ñi ñëw ñu ne kii kat farat ak man kon kon danaa ko indil ay galgal lu ma ko mën a xañ danaa ko xañ mhm. loolu bi ñu ci war a wax dafa yàgg mhm. sa commune bee boo fa bokkee fekkee na maire bi yàgg moom faru leen lépp loo fay lijjanti xëy na gan mu dem ba tëkku waaye bu fekkee ne mi ngi am tey di bakkanam rek du la ko jox. waaw bëri na day tàggatémbe de. day tàggatémbe da koy bloqué mais loolu mooy lan. Mhm. boo xasee ba ne boo gis nga bu demee gan ñun ñëpp nekk candidat. Mhm. kenn ku nekk na faral ku la mais bu yàlla defee ban fal kenn gis nga ñi la falutoon président Macky Sall ñi ko contre sax mooy seen njiit ci réew mi. Mhm. ñi ko contre laa wax de que ce soit Sonko ñëpp président Macky Sall mooy seen président. maintenant le reste nag bu ñu dee ba ci mbirum politique kenn ko ku leen xëccoo. moom tam nag dafa war a xam ne ne xëccoo am na ñoo xam ne faruñu nag moom am ñoo xam ne dañoo faral na moom mais ba yàlla defee mu falu ñépp moo leen yilif amul sañ-sañ defal kii loo xam ne ñëpp ñoo ko bokk di bay xañ koo xam ne kii moom itam dafa war a am ci li nga xam ne ñëpp ñoo ko bokk te loolu nag mooy problème bi fi mu ne. Mm-hmm. Mm-hmm. yéen a kaay noonu la xëyee xam naa ne loolu xëy na amul ñooro waaye li lër bu daal mooy ñi nga xam ne ñii ñoom dañoo jàpp ne seen Habré moo leen lor ba seeni euh, mbokk ñàkk seen bakkan ne nañu ak jën kaso mu waxtaanee wuñ ko na fa des. Mm-hmm. waaw na fa des Yoff Layeen ña ngay jooy seen ab xalif yéen kaay bi ni ki démb lañ ko delloo njukkal daanaka ci kàddu yëpp benn la maanaam kenn la koo xam ne kii pusalum la ñoroon te kër kilifa diini yëpp ràññee nañu ko Thiénaba Seck tamit kazalika ki nga xam ne kii euh, tey moom la ñu def xalif ba di euh, Serigne Assane euh, Seck yéen a bi ne moom ci boppam tamit fi ñu toll nii daanaka du gan ndax tarixa bi def na ci loo xam ne lii lu am solo la. Hmm. source A. alors source A moom dafa des ci lu jëm ci wàllu caution ñeel caution bi ci élection locale élection locale yi ñu dëgmal war nañ ko wàññi nag maa yow ndax bu ñu mënee bokk ñu bokk ci. waaw waaw waaye fukki million lañ doon wax. ministre de l'intérieur euh, nee fi ñu toll nii euh, mi ngi ciy waxtaan ak gars yi acteurs yi. Mhm. te gën gaa yéex ñaar fukki fan ak ñett ci weeru août bi ñu dëgmal danañ ci am jubóo. waaw ba xam ne ñaar fukk la ñuy def wala million la ñuy def wala ñaari million la ñuy def fukki million wala juróom million la ñuy def waaw. nañ ko war nañ ko xam cent cinquante jours avant élection yi. noonu kon nag ñaar fukki fan. nee mhm. gën gaa yéex ñaar fukki fan ak ñett ci weeru août bi ñu nekk danañu wax dëgg-dëgg askan yi nag. lii kat mooy costion bi ku bëgg a bokk ci élection locale yi. Mhm. mais moom gratuit mu mënta ne. déedéet. ah moom gratuit kenn ku ne day jóge ah. mais bi aussi am na nombre de conseillers yooyu am. waaw dañ la koy dellowaat waaw waaw waaw mi mel ni présidentielle. Euh, présidentielle waaw. Hmm? Hmm. waaw ñu bëri jotaatuñ présidentielle. ñu bëri seen xaalis dem. ñoo dañuy maye xaalis rek. mais est-ce que loolu du du du question de du du du mbirum loterie sax ñun la ñuy def nii suñu suñu réew mi. am na yu bëri si kees kii bi lay delloo. dañuy loterie kon bii gaañ bii perte la man dama ne dajal dalal naa ministre boo xam ne fii. Hmm. ab ancien na ma jaay samay kër campagne yi tay la bañ na sax boo sa xam nga tay mooy carte. ngi dem ci lii mais damay. lan la war a kii. boo faloo nag bu ko loolu mooy tax waaw ñi ñi yuuxu naan dañoo war a xoolaat fonctionnement parti politique yi. financement yi xam nga boo taylee sa kër. Mhm. pour campagne. Mhm. xam nga lu muy tekki. Mhm. mooy yaa parti bi. sa falu moo la ñor pas defar askan wi. kaay ñu defarandoo askan wi suñ ci yemee ci bokk ci bëgg-bëgg ku ne day indi la mu mën. suñu paree ñu ànd. dem seeti ku ñu mën a dimbali ci loolu te bokk ñun vision pour ñu lu ñu dem. mais su fekkee ne kenn dong mooy financer parti bi yëpp. wala dañu xaar ba nekk ci nguur tibb ci askanu li ñu am di joxe ci waa parti bi jamais du ñu changer li fiy changer c'est-à-dire pour ñu changer ko il faut ñu nangu ne parti bi waru nekk parti kenn moom parti mais militant ma carte parti bi président du parti ak général du parti ak militant ba nekk ndumbelaan ñoo ci war a yem képp benn voix ndax kenn du vote ñaar yoon li président de la république di jiite APR yépp bu vote jotee ëppale wut Émile Ndiaye carte bi muy yóbbu ci urne Mhm. képp la fa am mhm. te mun na am bu Émile téye kartam ñu daanu mhm. ndax mën naa am carte bay indi victoire ci Émile lay jóge loolu mooy tax ne bu gis nga parti dañ ko gis nga yow mi jël sa xaalis sa kër sa nangam jaay dem nañ ba sunu morphologie sunu suti euh, réalité boo ma jiite woon parti élection yi di jot ma ne leen dañuy cotiser pour sunu candidat ñu ne ah candidat bi da jarul topp candidat bu amul lu mu joxe caution c'est-à-dire le candidat pas un candidat buy joxe caution personnelle dafay war a joxe caution parti bi ñoo war a joxe caution par candidat bi. Mm-hmm. loolu nag mën na nekk cotisation am na ñu ko def Macky Sall bi muy def fii ñun bi ñu nekk diaspora dañu dañu lañ laaj ku mën. Mm-hmm. pour la candidature de Macky Sall. kii joxe lu mu am kii joxe lu mu am kii joxe lu mu am mm-hmm. je le dis man dama joxe lu ma am parce que j'ai soutenu le président de la république Mac enfin le candidat Macky Sall. te lu taxoon nga def ko delloo nañ la ko wala. non delloowuñu dama cotiser comme diaspora ni ñu cotiser hmm. ñu bëri dañ doon cotiser pour le candidat parce que ñuy xaaruñ ci woon dara ñuy cotiser parce que j'étais convaincu c'est le candidat que Ka ak Macky hmm. bi Djibo Ka nekk candidat Djibo Ka laa voté hmm. bi Macky nekk candidat Macky laa voté en tant que Aliou Ndiaye parce que c'est lui que j'avais comme candidat je parle du premier tour béro du de la première candidature Pero italien la moo waaye. Uh-huh. de la première candidature. 2012 uh-huh. n'empêche su ma ñëwee di liggéey 2012 su ma ñëwee di liggéey su ma ñëwee di def damay def sama damay xalaat la wax li ma xalaat. Uh-huh. parti bi bi ñuy dem ba di ko uti. pourtant je ne suis pas un militant de de de de Macky Sall. je pas militant de la je n'ai pas de coloration politique. ba may jël di vote ji yow loolu nga jël vote ji kii loolu la jël vote ji. xam nga lu ñu mën a yemale. mooy parti bi dafa am statut. am ay règlement. ñu ne carte membre bi moo koy dundal. léegi nag bon volonté association la kum neex yëkkati fële sa un milliard bu la lew mhm. kenn aayewul nga ñëw may ko parti bi mais li bon mooy parti bi day am kenn koo xam ne li mu bëgg la ñëpp yu def loolu moo dul moo defum réew loolu nag boo ko ci tabaxee parti boo indee parti boobu mu ñëw réew mi dangay ngay bëgg a tabaxee réew mi noonu mhm. maanaam li ma bëgg ci réew mi loolu moo am mhm. même su fekkee li ma bëgg bokkul ak li askan wi bëgg loolu mooy nërmeel kenn euh, waa réew mi compétence dootu am militantisme moo koy remplacer compétence dootu am farantoo moo koy remplacer gën a jege président gën a jege doomu président gën a jege jabaru président gën a jege nangam parce que doomam la jege na ko diw la ko xam na ko compétence dootu am bu ñu ci lamee ministre ministre bi day du xool compétence mhm. s'il n'est pas patriote day jël ñi nga xam ne ñoom ñoo ko jege et ça part du de la base au sommet mhm. mais bu ñu yemalee ne parti bi ñun ñëpp ñoo ci yem mhm. le président bi parti ou le secrétaire bu juumee dañuy toog en conclave duut ko baaram génn sanctionné ko mosuma dégg au Sénégal un parti bu sanctionner le leader du parti. et les leaders du parti ne commettent pas d'erreur. si ku ko jóg sax duut ko baaraam. waa parti bu jóg saagal. Mm-hmm. ne la da ngaa xamante et après on va changer. Mm-hmm. comme qu'est-ce qu'on va changer tant que ñu ngi koy def du ñu changer. Mm-hmm. fii nga gis waa Idriss waa Idriss Seck li ñuy métti métti ci ñoom ba Idriss sa defee mburoog soow mi dañu koo défendre. Ah. ko tànn suñu bopp. soo demee ci ñi génn woon ci Idriss Seck ils n'ont la même vision nit a ni mel ku nekk ak sa xalaat mais suñu bëggee lii gouverne réew mi loolu la ñuy changer d'abord les partis politiques seeni xaalis yeniy jóg di ko financer ba ñëw ci parti fan lañ ko jëlee mhm. benn gouvernement ñemewu koo duut ndax boo ko duutee ñu génne la say mbóot noo defoon ba financer sa parti mhm. li ñu war a njëkk mooy nan la parti politique yi di financer seen seeni campagne dem ca bitim réew dem gis fa jaaykatu arme dem gis fa jaaykatu nangam jaaykatu kii kuy bëgg a ba mu bari mu ne la man jaareel naa ko fii mu jaar fee indi xaalis ngay joxe ay liaas ñu dem joxe jël ay oto ay 4 ay 8 x mu leer na parti bi il y a cinq ans de cela boroom amut lu mu dawal. ñu dara parti au pouvoir nag moom lu mu war a campagne comme par exemple ci misaal coalition Benno Bokk Yaakaar. parti au pouvoir comme opposition li ñu a hmm. campagne ah. mooy xaalisu militant yi. Hmm. loolu la ñu war campagne hmm. parti association la. parti au pouvoir. c'est ñoo ñu ne non mënuñu ñëw parce que ñoom ñoo yor keesu état bi. waaw mais loolu mooy jalgati képp ki la koy wax nekkoon na ci. gis nga suñu opposition bi ku bees amu fi. ñi nekkoon ci opposition bi yépp amu ci kenn ku musta nekk ci pouvoir hmm. limal ma kenn ku tey ci ne ci ku nekkutoon ci pouvoir hmm. waxal waaw kenn dañ la xanaa de kenn koo nekkoon ci opposition rek yaa ngi woon ci pouvoir tey hmm. li seeni wax di bari bari yépp benn lañ li ñuy wax nii moom lañ doon def démb c'est pourquoi je dis bu fekkee ne am na ci benn bu bees booy mën a point d'interrogation di ko wax ak moom c'est Ousmane Sonko amu ci keneen ñi ci des ñëpp du ñuy bees tàngalaat ceeb lekk la ak togg ceeb bu bees dara soppeeku ci le ce qui peut changer mooy lan nga ñuy proposer parti politique yi bu ñu leen créé ba pare fan la ñuy jëlee seeni financement financement yooyu naka la ko état bi di organiser naka la ministère de l' intérieur di organiser bu dul parti politique y compris la société civile y compris certaines associations lan moo fi indi homosexualité bi ñuy wax ni c' est de l' parle des gens des lobbies qui arrivent qui mettent de l' et comme li ñu war a régulariser moo bari du parti bi rek su ba parti bi doxalee nii mënoo ci dara bu ñëwee ci pouvoir bi noonu lay doxee mm-hmm. le parti au pouvoir a toujours l'argent avec eux mm-hmm. Idrissa Seck waxoon na ko fi mm-hmm. ci livre am ba mu fi liggée woon première phrase moom li mu waxoon nee na bi ñu duggee ba njëkkee gisanteeg Ablaye Wade ci wax Idrissa Seck moo ko wax loo waxuloo ko Ablaye def na ko nos soucis d'argent c'est sont terminés déjà suñ suñ suñ jaaxal xaalis moom jeex na c'est-à-dire ñun tey ñooy maye ñooy joxe. kenn du la séddati léegi ko fi def vidéo ñun ñun lañu daan séddale ñuy séddale. wallaay ñooy kan la ñuy sédd loolu moo fi am jël nit ñi nga xam ne nit ñaa ngi dee nit ñaa ngi sonn nit ñi liggéeyu nit ñaa ngi jël géej nga jël xaalis boobu di ko séddale ci ku la neex. danga dem gis ko nag ku la neex ku ko lekk ba pare wan la ne la neexoo ko. Mhm. kon nañu woon y arrivera. ñu noonu. Mhm. acca Dakar Times Dakar Times moom daanaka ci mbirum ger la xëy ak euh, mbirum yorin wu sell Euh, daal sooxe na dëgg-dëgg ci réewum Sénégal rawat na ci Afrique yëpp nag ndax boo gisee ci Afrique moom ger tax na ba Afrique di ñàkk lu daal di toll ci téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñetti milliards ci dollar Afrique moom lay ñàkk ci ger bi. Hmm. ger bi nga xam ñu ngi koy gerante. Hmm. loolu lay ñàkk waaw kii ger ak ki ñuy gerante. ñaata ci milliards. cent quarante bon lii il faut nga convertir ko man mosuma am dollar. ah ci dollar la waaw ci dollar la. dollars euh, milliard milliards de dollars. loolu xaalis la. xaalis la. Mhm. ci Afrique yëpp la rek. Mhm. waaw moom lay tax Afrique di ñàkk loolu lay ñàkk ci ci koppar ci wàllu guerre. bu dee wàllu euh, yoren wu sell nag moom sooxe na fi waaw euh, ku weddi xoolal Pape Ali Guèye mii ñu def si yéenekaay bi waaw. yéenekaay bi daal dinañ xëy ci ay mbiram. temps jël nañ Pape Ali de. waaw Pape Ali Guèye de mbaa da ko xam. Dakar Times. da nga ko xam. non man kay xaw ko. Ah. maanaam ah, gis ñu koy teg rek bu bëri rek. waaw temps yi moom Dakar Time ñu ngi xëy si ay mbiram. waaw Pape Ali en tout cas daal euh, la ñu jàpp daal fi ñu toll nii bu ñu bëggee ñu xeex dëgg dëgg wàllu euh, guerre bi ci réewum Sénégal faw taskatu xabaar yi jóo si seen loxo faw société civile bi jóo si seen loxo waaye faw kilifa yi jóo si seen loxo waaye faw yoon di justice jóo ci loxo. Mhm. waaw ngir rek ku fi yëkkat dara balaa nga ko rawal ñu ne la kaay. li PDG di wax gannaaw def ko ci ñaawte fi nañ leen feeñal. Mhm. nañ weer. te bañ koo diil si suuf mu ñu dem. ok libération libération yéen kay ca commune bu Mbaan la daal di euh, des foofu la teyit euh, daanaka pasar pasareef cuufa suuf ak di ko jaay la fa daal di gis ci euh, société boo xam ne bii moom lay daal di doxal ay milliards yu bëree bëri yoo xam ne yi ña ngi ko fay daal di jaay ay suuf yoo xam ne yi askan wa fa nekkee nee nañu moomuñ ko alu Diack moom nekkoon na président conseil rural bu Mbaan la mu jàpp mooy. lay xew ca mbaan buñ ci waxul dëkk yu baree bari danañ leen toxal waaw te ka bëgg a toxal moomu ko waaw rabi euh, faqiig mi moomu ci dara du ci dara ci gàttal te fi mu toll nii yi ña ngi koy jaay diggante fukk ak juróom jàpp ñaar fukk ci ay euh, milliards waaw ay kër dañ euh, fay jaay ñi nga xam ne ñu bari nañoo am ci hectare yooyu nag ci senegal ci société yi nga xam ne ko daal di euh, moom daanaka mer bu fut ñu def yeneen kaay do beneen dossier la beneen hmm. cas hmm. bu ñu war a régler Dakar Times dañu xamal tamit ne hmm. euh, président Macky Sall moom ñi mu dàqoon ñëpp consulté na leen ñi mu dàqoon ñëpp ngir beneen gouvernement bu muy taxawal ñi mu dàqoon ñëpp waaw waaw Aly Ngouille Ndiaye Amadou Ba Oumar Youm Aminata Touré te Aminata Touré nu mu soppeekoo waaw diggante bi daal am bi passé waaw day na dañ leen jël nag kii nañ de. waaw ndax gouvernement politique la gouvernement campagne. waaw moom la ñu waajal. moom la ñuy waajal. d'après bi. waaw moom la hmm. ñoom la woon de. ñoom la woon élection lañ jëmaat. waaw. élection lañ jëmaat de. waaw ñoom daal ñoom ñoom daal la nañu waxtaan waxtaan moo gën xuloo. Hmm? waxtaan a gën xuloo. Hmm? waxtaan moo gën xuloo. ñoom tonton nañ ci jiite réew mi rek. ñoom tonton Allé ñoom tonton Amadou. waaw non tonton Allé moom yàgg naa wax man na ñëwaat la def kay ban génn ko am naa droit à l'information non. ko doon may mu dem. non may may aw ci tool tool yi rek. gis nga nit xool ñaam bi ak tomate. non gis nga nit mën ko jël dugal ko ci gouvernement yaa moom nag sa cëgg guy maanaam yaa yor sa carrière bu la neexee bu la neexee bind bu la neexee gome. Hmm. waaye léeg-léeg ànd ak nit moo gën a jafe waaye takkalu moo gën a jafe parce que léegi boo ànd ak nit ki ba nga toll fenn fi bu ngeen xëy xëy taxaloo mais faw nga indi justification lu tax ngeen taxaloo. non non parce que nekkatul say mbir. tu n'es pas obligé nga indi justification. waaw waaw moo tax nag léegi nag ñun. lu tax mi indi justification. waaw léegi Aliou lan la def. loolu ñun man maa la faloon. waaw léegi man ma fal moom tant que dama la fal. suba suba mun naa la wàccee am na ci koo xam ne kii par exemple tey mënoon nañu dem élection tey mu sanctionné président Macky Sall parce que li mu génn Aliou Ngouille Ndiaye taw xugul la def moo tax. parce que ci moom la gënoon gis boo. kooku dafa xamul. waaw non ba moo tax dañ ko est-ce que war ñu ko xamal. xam na moom solo waaw palais fu maire. waaw. palais fu député. waaw loo xam ne askan wi ñoo la ko fal. waaw waaye nit mu ngi lay fal moom. ñaata ministre nga fi taxaw nga naan nga ñii si raxee naa seen liggéey kon kay lu bu yoon nekk. waaw mais déggul ma la nit kooku dañ ko fal. waaw ñu ngi lay fal nag décret. waaw boobu saa su ne mën nañ ko effacer. waaw fexeel yow di wi di la fal. boobu mooy da nga effacer décret nag décret ñun ñu effacé la. <laughs> waaw xanaa nit ñi effacé ko waaye moom fu mu toll nii. jaarale ko suñu <laughs> ngi noonu <laughs> waaw. mais sama slogan hmm. taxaw commission parallèle yi ñuy taxaw yaa ngi koy dégg. ay commission la wala ay leneen la. ah commission la kañ ndax ñoom seen commission lañu taxawal. ko hmm? ku leen di taxawal. ñoom ñoo créé seen commission. ñan. ñoom. ñoom ñan. ah xamaguñ leen de. ñu ngi taxal ay nit te bëgguma tudd ay tur. ah am na daara am na Joal. boo toogee fii nag moom nag booy wax nag ci antenne bii. waaw ah. lépp su waa nga wax ñooma walla ñu bàyyi leen. non. man daal li ma dégg ci presse. waaw ak ci réseau yi. waaw mooy am na ñu doon def lu dul yoon jàpp nañ leen loolu nag laay xaar ci réew moom. Hmm. am na ñu doon jalgati jàpp nañu leen. mais dégg ñu nekk seen ginnaaw. déedéet man li ma dégg mooy dafa am ñu doon def ci benn barab sàngam lu bokkut ak li xew. Hmm. ñu gis leen dénoncé nañ leen jàpp nañ leen. Hmm. ñu ngi corrigé lañ doon def lu daal laa dégg. bu fekkee loolu am na nag man sama xel daal ndax nit ñi dañoo nekk seen police bopp. gis nga élection yi dafa ñor ñin ñenn ñi. ñi bokk sax ci biir pouvoir bi. Hmm. daf leen a ñor ngir di am yu changé. ba ku ciy def lu leeru xanaa danga nga fu sori pour que li ngay def mën a mën a egg am na kuy def nag loo xam ne day defar ni day yaakaar ni hmm. la muy def day day day jëriñ kam koy defal fekk daf koy gaañ. Hmm. daf koy yokkal sax ay. daf koy perteloo sax ay voix. mais li ma jàpp mooy dégg ko mooy am na ñuy jalgati ba ñu dégg ne am na ñuy jalgati weer nañ leen. ña war a jaarale yoon ña ngi koy corriger. Hmm. loolu moom dal na xel. Hmm. lu mel ne am nag lu mu am rek nañ ko jàppee noonu. lépp loo xam ne gis nañ ne ku koy jalgati buñ jàpp ne diwa koy jalgati nañ jàpp nañ ña doon jalgati moom jàpp nañ leen. cest que nekk ci ginnaaw moo boobu man jàpp naa ne war nañ koo mën a jéem a bàyyi cest nit mën naa ne ci ginnaaw man mën naa ne ci sa ginnaaw di la bon lool lu tax bayoo ma dem boni sama bonu bopp. mais mais mais Alioune su ma la jëlee ma recruter ñaari gune wala ñett yoo xam ne dama leen di teg ñuy bindu nit ñi soo jàppee ñett ñooñu war nga fexe xool kan moo leen euh, sant liggéey boobu. loolu laa wax dama ni xam nga li ñuy tuddee. dëkk bee métti peut-être nit ñi yemuñu. lu métti métti na nit ñi yemuñu. dañoo war a dafa ndànk rek. nit ñi ah, yemuñ. ñi yemuñ mais ci ñàkk yem googu. Uh-huh. lañu war a góorgóorlu ba yow ñu teg ci nit ñi jom. ak bëgg lu baax. Mm-hmm. bu dul ne 5000 wala 4000 yan lay fay pour nga làqatu mu war laa juteel ñetti fani kaso ak nan lay gisee ci réew mi après ci société bi nan lañ lay gisee bu ñu la jàppee ci yaa doon sàcc. Mm-hmm. yaa doon jalgati yaa doon wax lu dul dëgg yaa doon nàngam. Mm-hmm. man su ma dee ministre may directeur de cabinet may parti politique de l' opposition ou du pouvoir dem jël sàmbaak dembaak paate di leen fay ñaar dërëm ñoom ñu dugg fële di di def dara man wér na ma ñoom sàmbaak dembaak paate bu ñu amee fulla xam nañ ne man mi leen koy defloo nawloo wuma leen. man sans ñoom xam nañ ne man mi ñuy rend si compte après nawloowuma leen ëllëg su may joxe poste de responsabilité duma leen ko jox ëllëg su may nit ñu tekki du leen choisir mhm. ëllëg su may neexaal neexalaate su may naw su may cité ay référence du leen jël te ëllëg su ma jëlee ay nit danaa ne leen ñu moytu leen ñoom cest à ki ñu koy def moo ignorant d'abord moo war jàpp ci boppam ne man kii di ma ko defloo pour pourquoi fii mu toog lan la ma ëppalee ban mënu ma fee toog et pour ma man fee toog damay jaar fi mu jaar mooy damay jéem a jaarale yoon commission am na damay inscrire inscrire samay mbokk ak samay militant ak ñamay samay xam ak samay pour ñu dem changer ji mhm. parce que il faut qu'on la change mais duñ la doon duñ ko changer ci jalgati sàcc gars yi am nañ seen policier bopp léegi yoo xam ne fii fu dégg ngay fëgg guddi di fa fëgg yàgg faa boo guddul ñu tëb miir cëppeelu fekk fa loo fay fëgg lan la ñu dénoncé la mhm. na autorité aussi am responsabilité bis bu ñu dénoncé rek ñu teg ci lan ci war a teg corrigé ko ñu delloowaat ko ci yoon ka leen yónni amul sens mook ñoom a yem genn mbon gi bu fekkee am na ku leen yónni am na ñoo xam ne kenn yónni leen ngóor la ñuy wuti ñoom ñoo dajaloo seen dajaloo bopp ngir jéem a jalgati seen jéem bopp ngir plaire à quelqu'un ku leen ko santut koo xam ne kii da ngaa ne yaa ngi koy defaral mais yaa ngi koy yàqal te bu la déggee boo muy mu génne la parti bi bu fekkoon ne nag ñan jàppoon dañu ne commission yooya ñoom éliminé nañ leen abadan enquête bi jàpp na ne ñooma dootuñ bokk ci luy commission électorale dana servir exemple que keneen du yàq mais je suis bien d'accord que ci phase électorale lañ jëm Afrique lañ nekk notamment au Sénégal on a tout vu yaa fii euh, Sénégal déggoon nga fi ñu naan voté nañ sax ñu dee. Mhm. kuy nomee ku dee kat gouverneur xaw ma lan donc voté ku dee war laa wala jafe. on a tout vu dans ce pays. Mhm. nañ fexe nag ñi nga xam ne ñoo ne ci gox goxaat yi. ñi nga xam ne ñoo nekk ci département yi ñoo nekk ci région yi ñoo nekk ci arrondissement yi ñoo nekk ci commune bi ñoom ñoo war a gën de vigilance. Mhm. fu na commission banque nañ sol seen tànk tubay dox ba niñ déggee ne code bi nii la waxee commission am ñu dem taxawoo noonu lépp lu ñu fa gis lu jaarul yoon ñu dénoncé ko au plus haut niveau dénoncé ko ci média dénoncé ko ci ñun ko war a dénoncé ñi nga xam ne ñoom ñooy ay leader de parti politique aussi di veiller à ce que ce que commission yi buñ ko waxee ne nii la fay demee noonu nuñ ko war a composé ma ngi koy composé woo et qu'on remette les informations au niveau de la DAF. Mmh. au niveau de la direction des élections bu ñu ko defee ñun ñëpp dans une dans une responsabilité totale. Mm-hmm. lu bëri mën nañ ko corriger dina am ay failles du ñàkk dina am ñu jubari du ñàkk noonu la àdduna bindoo mais ñuy dénoncer rek lu ñu gis rek nañ ko dénoncer. Mm-hmm. bu ñu ko dénoncer mu wér ñeen sanctionné nañ koy def mu servir d'exemple. maintenant que Macky Sall dem gisi Mimi Touré dem gisi keneen fii laa ko waxoon naa ko fii ma ne. Mm-hmm. moi je rêve très honnêtement je rêve de Sall. ñi mu génne ci gouvernement àndaat ak ñoom face aux élections parce que du ñuy tekkee di dara ci parti ni ci gouvernement am je rêve de voir Ousmane Sonko Abdoulaye Wade euh, Decroix toute la crème de l'opposition faire bloc unique face à l'opposition face à au pouvoir de manière démocratique je vois je rêve de voir un dépassement que deux personnes ou quatre personnes qui étaient à Rewmi est-ce que ça ne fait pas un peu rire ou poser des questions quand ils voient dans si benn scène autour d'une table même Palko nu ñu koy waxee même waaw scène Abdourahmane Diouf Déthié Fall Thierno Bocoum ñu toog mbagg mbagg di tàccandoo di reyandoo théâtre boobu du leen reetu la à quelques jours près ñoom ñëpp ils étaient est-ce que ça vous fait pas autour d'une table appelée conseil des ministre ou ça vous faisait un Mimi Touré qui fait face Omar Sarr. à Omar Sarr qui fait face à Abdoulaye Baldé s'il était wala ñu retrouver wu autour de la coalition Benno Bokk Yaakaar mais politique moo ni demee nañu peser les forces équilibrer leen ñi jógee ci mag yi ay surprise am warta bett kenn warta bett kenn que mu dem gisi euh, Mimi Touré déggoog moom dem gisi Youm déggoog moom dem gisi Aly Ngouille Ndiaye déggoog moom dem gisi Amadou Ba déggoog moom dem gisi Moustapha Moustapha Diakhaté déggoog moom set normal c'est dans le cadre normal de la politique dara nekku ci mais mun na ñëw ne leen information yi laa amoon yi xam ngeen nu muy demee c'est par recoupement après on s'est compris que c'est pas mais le coup déjà parti et eh, Mimi may ñu jàmm def nga fi ay décisions yoo xam ne yi loolu am na fi ba tàyyi Ali bàyyi li ngay wax ni bàyyi si fu jolof jolof yi lii amoon na fi revenons à la maison ñii duñ leen bàyyi ñu jël duñ fi liggéey ba tollu fii bàyyi leen ñu yàq suñu nguur gi liñ fi liggéey lépp suñ plan Sénégal émergent duñ ko bàyyee ñu ni yàq ñuy dem fi Ablaye Wade day woo kii ne ko maa la jur Sénégal duñ ko bàyyi ñii ñu ngi koy yàqal mhm. d'ici cinquante ans duñ fi jóg ba wax cinquante ans li taxut gis naa ne tu es brave tu xale nga nit ñaa ngi la topp Decroix bàyyi leen lii ngeen joppale xale bi ñu am une forte opposition am une forte euh, puissance euh, de, du pouvoir militants yi dañ ciy topp bu vote jotee ku nekk dem bàyyi leen ñu wax seen i wax jouer seen i théâtre mer seenu mer ñoom ñoo bokk fa ñuy jeqee seeni i kudd bu ñuy lekkalante doo ko fàtte gis nga bu tabaski jotee waa opposition ñooy jëndal xar Babacar Gaye Babacar Gaye mooy jëndal xar waa pouvoir kii mooy jëndal xar maami kële askan ku leen jëndal xar <laughs> ñun ñooy toog nag walla ñun kenn jënd lu ñu xar askan wi ci reyante ñoom bu leen di jënd yaa ngi nii boo ma jënduloon xar du ma tabaski <laughs> euh, xoolal nañ leen bàyyi nañ am sénégalu jàmm ah. bu fekkee ne moo koy jëriñ ah. le reste tout le reste mhm. gis nga bul mere benn politique ci ay waxam mhm. hmm. benn politique ci ay waxam bul ko ci mere mhm. jéem a la mere apprécier politique ci ay jëfam am fullay lii la ma wonoon ma ndax ma fal ko lii la ma walaat moo tax ma falaat ko lii la ma wanaat moo tax ma folli ko mhm. bul ko falee ci li muy dégg bul ko falee ci li muy wax la ñuy wax ak la ñuy dégg la ñuy joxante ñëpp ñun ñoo ko moom ñun askan wi fi lañ toog nag di ko wax ba sonn ñu tollee tuddee ñuy xaj parce que la koy déglu te jéppi la naan la Cheikh Aboua mhm. la caravane passe sa Aïssata Tall Sall dafa mel ni ges na leen léegi de gesul kenn c'est de l'arnaque déet waa ji encore kii kenn kenn da leen a xam ku leen xam dix personnes xamuñu ñan mooy ñii maître Aïssata Tall Sall man a seconde arnaque la laa wax ñu kenn rey. maanaam bu ma génn la diaspora nañu ci xaar ñu waxtaan ci. amul ah. benn problème l'idée est géniale. l'idée mm-hmm. est géniale dem signé ji une convention pour les logements sociaux pour les immigrés. Mm-hmm. démb dimanche bi passé. waaw ah. Macky Sall. Ah. moo ànd ak Jetran. Mm-hmm. dem pose ji première pierre. les résidences de l'espoir. ci émission bi. Mm. am na ko wootee Angleterre. li may wax dem leen ci Facebook léegi Africa 7 da ngeen gis. Mm. am na ko wootee. Portugal. Mm-hmm. am na ku wootee France. Mm-hmm. maanaam le monde les cinq continents presque teew nañ ci bu mooy Arabie Saoudite. Mm-hmm. pour dire que li taxoon ñoom ñu dem jëndi kër Jetran. Macky Sall teewaayam bu mu taxawoon. moom ak président Gambien pour que Jetran ñëw ci diaspora bi jaay leen ay kër. ñooñu tey ñu ngi bloqué jaf seen xaalis amuñu kër amaguñ maison te Jetran waxu leen kañ la am seen kër kañ la ñuy liggéey ba ne leen assainissement la. Euh, kenn ku yor assainissement bi l'ancien ministre génn na leen assainissement bi du problème génne nañ ko wax nañ ko ba mu rafet ma jeex na. dara nekkut ci c'est pas un problème de l'assainissement. lii amoon na fi ak Namora ak Wade. on le répète. société bi ñu wax ne moo ko signé naan immobilier nangam boo waroon dix immigré xamuñ ko tey lañ koy doog a xam. l'idée est bonne. et génial que le pré que que l'État prend des initiatives balaa muy pare c'est le ministère lui-même. qui a fait une la sous ubbi waat nañ benn bunt de l'arnaque yàlla bu ñu arnaqué waat mais ubbi nañ bunt de l'arnaque mais maître Aïssata Tall moom dañ ko bëgg indi à l'heure wala xam na ni mu demee. wala dafa bëgg ñëw ak lu ci mënti dem moo ko porté. Mhm. parce que mooy ministre des affaires ministre yi fi jaaroon waaw waaw moo ko porté. Ah. ñi fi ñoo ko porté woon ñoom la wax moom moo ko porté moom la ñuy wax duñu wax keneen. est-ce que dossier bu mu fekkoon wala. muy Sarr defu ko. Mm. non lii lu bees tàq la. ci logements sociaux 1000 logements sociaux yi ci ni ko waxee dañ ne ñi nga xam ne ñoo di sénégalais. dimanche naa leen ubbil antenne gars yi apprécier seen bopp. jeex na rendez-vous débat de la diaspora. incha allah dimanche 17h. émission mag bàyyi noonu ñu dem ba ñun mooy la xewoon ministère de. waaw maître Aïssata Tall lañ demoon mooy arnaque lañ demoon. lañ demoon ñu. lañ demoon lañ demoon lañ fekkee de maanaam man dañ ma ci rey man loolu du. dañ ñëw fa dem ngir information presse presse la. waaw ñun dañ fa dem lu. avec moo demoon. waaw. bu sax sonn pour bi ah mu yow bu mag bi. dimanche adjectif bi. dimanche 17h débat de la diaspora. ci Alioune neex de ah. ñu ko ci Alioune. Ah, wallaahi man kay débat du monde rural laa bëgg def fi mu nii. am ah, dëgg di kenn ku ne boo doon wax ci loo xam. yow xam nga ni xam nga ni. <laughs> moo yàq Moustapha Moustapha moo yàq ci Alioune. lii nga liir. Mm-hmm. imam mm-hmm. lii mm-hmm. soo ko doon posé démb sa invité. Mm. si la tontoo sa yaram daf. Ibrahima Thiam. la différence mm. entre. Mm. arnaquer des militants. Mm-hmm. ak la diaspora. diaspora sénégalaise dépassé na yii. Mm-hmm. Mm-hmm. xam nga ki nga invité di otom bi jënd na ñetti kër yi ñu bëgg a jaay. panu otom bi donc jënd na ñetti kër. te pourtant c'est un produit pur de la diaspora. c'est cette diaspora la ñu war a corriger xool affaire bi dañoo dépasser. ay logements sociaux pour la diaspora. je ne dis pas que immigré yi soxlawuñu logements sociaux. mais immigré boo fi jaay këru 5 millions mu wax la sa ngéntey maam. logement sociaux sénégalais yi ñoo gën a soxla immigré yi waxuma immigré yi soxla luñ ko de. Mm. arnaqué nañu ci douze milliards cinq cent. Ah, allez exploiter le rapport. il y a des factures qui ne sont pas encore justifiées. on a fini par du n'importe quoi. on commence encore à ouvrir des portes d'arnaque. je ne dis pas on ouvre des portes d'arnaque. Mm-hmm. parce que c'est l'État c'est l'institution qui se met devant nous pour nous dire kii la ñu ànd ak pour liggéey. il y aura des militants qui vont se mordre la main parce qu'ils vont acheter parce que l'État là. Mmh. Et tout a été orchestré préparé aussi par des militants. Mm-hmm. gëstul demal APIX. Mm-hmm. dama lay jox rek piste yéen comme ay journaliste ngeen da ngeen bëgg investigation. Mm-hmm. société bi ñu bind nga bind APIX xool NINEA bi après nga topp un peu pour pour parcours nit ki mbind nga demaat ci Google nga topp kanam. dëgg lu mu leer ñu dem. acca stade ñu jéem wàllu tàggat yaram incha allah. stade yéen kay dafa daal di euh, des ci euh, mondial ni ki euh, démb la ñu daal di jox drapeau suñu gaynde yëngu ci wàllu football tefes drapeau bi raayam réew mi ngir ñuy waajal li nga xam ne moom mooy final bi ci geneen wet ga ñi nga xam ne ñooy super coupe bi tamit Europe dina daal di am Chelsea ak reyal ñoo koy daldi di laale tey jila ñaari doomu Sénégal danañ ca daal di euh, bokk ñoom nag euh, war nañoo daal di euh, wane seen bopp bu baax ci li nga xam ne lii moom mooy super coupe coupe Europe boobu lay ñu war a amal ni ki tey ci ngoon léegi leer na Messi dem na ci Paris Saint-Germain. Hmm? bi laay gis nii mooy. moom mooy feebar. fukk bés bés bu jot. bés bu ñu ngi ko war a fay juróom-ñaar fukk ak ñaari million muy 72. millions par jour journée. waaw journée bi. journée 72 millions. est-ce que lii dëgg la. ay ah, dëgg la kay <laughs> Mbaye Dame. non damay la ah. dëgg la de. 72 millions par bis lañ koy fay. journée nga masoŋ ni ñuy journée journée 3000. waaw. Mhm. ay léegi moom moom moom Paris saint ma lu muy am ci lii lu muy am ci lii comme man profane bi wax nii rek la léegi moom Paris Saint-Germain mii di ko fay lii. Eh. xam naa yaakaar naa may ko pour bëgg taaram ak mën a mën a football xam rek de. mun na si ay trophée jaayu mayo bi mun na ko ñëwaat. jaay maay ba mën na ko weccaat parce que li business la aussi hein. business la football business la. mais 72 millions. waaw. par jour te yeneen jours yi ñëwaguñ. journée waaw journée. mais football bi am na xaalis de. journée 72 millions. Petit Bara jëndal ko bal. ah. Petit Bara boo ko jëndalee bal ci mujj gën ay nijaay ñu fii gën fi doon football dem nañ ba retraite. te ñoo dàqoon football ñoo ko dàqoon football ba tey ñu ngi nii demuñ fenn. yéen seen jamono. football amutoon loolu lay jot waaw waaw koy man de li est-ce dëgg la moo tax may est-ce que laaj xam naa dañ ci dagg de waaye lañ ci dagg dagg dana des de ndax loolu lay jot ah 72 millions par jour dee leen xalaat aussi waa ji li muy daj football bi waaw li muy daj ba egg fii ah, waaw ah déet li muy daj am na ñeneen ñu daj leneen di lu ko gën a métti di moom yi moomuñ seen bopp de nit ki bu fekkee ne dañ koy jaral moom képp ñu jël ab avion waaw déplacé ko poñ ba poñ hmm. am na lu tax da leen xalaat aussi moom mi ñuy fay nangam bu ñu xool rek nangam jën koy fay hmm. nañ xool li nekk ci ginnaaw nangam jooju jëpp lan lay daj dañ lay conditionné xëy na semaine bi benn yoon nga ciy am nga ciy génn dem gis sa mbokk hmm. fi ngay dund du n'importe qui moo la ñëw gis du n'importe da nga toog lu yàgg doo gisanteeg ñi la gën a cher lu dul téléphone xëy na wala gisante bu jafe ngay gisanteeg ñoom hmm. am nañ ay heures yu difficile yu ñuy entraîné ñoom it di ko xëy li peut-être kuy julli ku am seen vie amuñu vie privée parce bu gàtt la aussi contrat la waaw mais itam il faut ñu jàpp ne nit ku nekk am na ci lu mu réussir. Mm-hmm. maanaam métier comme li ñuy wax bu bënnee fay. Mm-hmm. ci tànk yi laa ko gëm ci leneen ki laa ko gëm ci leneen ki laa ku nekk ak la nga ko gëm mais métier bu bënnee fay. Mm-hmm. il faut pas voir man man damay ça c'est une référence pour man de dire Sadio Mané c'est le meilleur joueur le plus payé. mais yàlla na ñun am fukki saajo maane ndax ñu am lu mu am Bambale. ci football bi il a sorti Bambale quand même. touristiquement parlant am na ko xam ne jaral na ko jógee Angleterre pour dem seeti Bambali. Mhm. bu saajo Mané amutoon xëy na turu turu dëkk bu génn. Mhm. Hmm. aspect kii bi foofu la ne. Sadio Mané mun na jaay sénégalais. Mhm. mun na jaay Sénégal gépp j'aurais bien aimé tey ministère du tourisme bu Sénégal. dem négocier ak Sadio Mané ci Sadio Mané fa muy ne. la destination Sénégal ci ay mayoom ci club yi xaw ma football nu muy doxe mais c'est du maanaam genre. marketing la pour vendre la destination Sénégal. Mm-hmm. je donne un exemple le deuxième Sénégal xool ci nit ñi gën a suivre ci àdduna. Mm. ci TikTok sax nationalité italienne. xabaan la am xaabi. xaabi de personnes mm-hmm. maanaam fexe na ba nekk nit bi gën ñi gën a suivre ci àdduna ci Italie ci TikTok mooy nit ñi gën àdduna gën a suivre tey ci TikTok te ñu baal ma. xabaan wax. waxu ngoo waxu dof waa jooju doon wax xaw ma cent mille kii la ca topp di waa gars yi na waxu dof waaw xam nga xabaan lu muy def hmm. jeex na deful leneen nga lu wax wax nii ay gestes nii la def kese mais c'est des gestes qui parlent qui parlent à nit ñu dégg langage bi man su ma diggee xam bi damay damay ree mais j'aurais bien aimé tey lépp ministère du tourisme déploie des moyens en Italie pour jël xabaan ne ko jaayal ñu la destination Sénégal jaayal ma air Sénégal na ko fay xabaan c'est une fierté tey la presse italienne dit booy xabaan a vendu le Sénégal jàpp leen nag boobu mu gis nga ñi ñuy suyur bu subaa ngeen dégg. waaw oui ma la wax loolu kay. léegi ngeen dégg ñu dem dem. yow kay seen seen conseil. je suis le bu subaa ngeen def da koy jar ñu débloqué. nangami million. consultance gratuite yi ngay def ne xabaan laam kaay dugg. non consultance gratuite yi ngay defal nii tamit ñi nga xam ne ñii tey. sam réew la naam na. bu ma dee ñu nettali ma ko ki patriote la bu ma dee ñu nettali ma ko. patriote la. parce que xiifuma te maa ngi lekk ma dee ñu nettali ma ko ñeetal ko samay mbokk wax leen ko. spaghetti lay jaay xabaar. loo bëggoon spaghetti. loo bëggoon pour wax nit ñi ni ñuy defaree spaghetti. fayee ko consultance dëgg tikki waaw. <laughs> dëgg mais dana jaay Sénégal bu Sénégal avancé man damay avancé. président Macky Sall mi ngi lay suivre de. bu Sénégal avancé damay avancé maam daam. cest à dañu qu'on profite des occasions et des opportunités que nous avons à l'étranger. Hmm. saisir sur ces occasions l'Italie aujourd'hui mi mu bañ a jox xabaan la nationalité. xabaan bi muy ñëw gone la ci niñ koy nettalee ci presse bi fa mu duggoon ci Torino Casa Popolare la Casa Popolare mooy euh, logement sociaux parce que ay way juram loxoom jotuñ seen ginnaaw mais mbirum yàlla ak wërsëgu nit la kenn xamut fu muy jóge doon na def di opéra yi ouvrier ba mënatu ko tey mu dugg ci TikTok en tant que xale jeune bu màggee Italie ànd ak màggandoo ak xale Italie ba nekk italien bi àdduna gën a seetaan média italien yëpp tey dañuy xëy xëy ci xabaan lam li muy def yëpp c'est pour vendre des produits di gagner di publici ay publicité di ci dund macha allah mm-hmm. mais tey waroon Sénégal moo waroon a jóg jël xabaan laam mm-hmm. récupérer ko bala ko Italie di récupérer mm-hmm. tey Italie mi ngi glorifier xabaan laam te nanguwu ko sax jox document italien ne ko italien nga permis de séjour la yor te fu Italie jóg ñu ne la premier euh, sur TikTok est un italien maanaam Italie mi ngi profité ci côté marketing am ci côté tourisme am ci côté nangam pour jaay produit italien à travers un étranger mhm. qu'il ne reconnaît pas et son pays d'origine l'ignore dégg gu ma presque presque bu bëri bu ku wax ci xaban la presque te buñ cay wax boo moyut dañu xëy rek na lay woy la tiktokeur kii dem recouper benn kii italien mhm. te xaban am nay mbokk du jaay boppam ñafe ji na ay mbokkam daani nañ seen doole dem nañ Europe toog nañ fa di def la ñuy def ba yàlla may leen fa doom boo xam ne jóg na ba nekk une référence mm. duñ ñëwaat naan leen kaay leen jël bu ñu dikkee sax nañ leen poser ay conditions yu tax ñu def ko mm. mais Sénégal moo waroon a jóg tey ci Covid bii ñu ne mm. ci intelligence bi ñu nekk pour utiliser xaban lam pour vendre la destination du Sénégal et c'est bien possible mm-hmm. je ne crois pas que bu demoon ci wayjuru xaban ci équipe xaban ci manageru xaban ci mbokki xaban au xaban mm-hmm. mm-hmm. mais on aime que le Sénégal yu euh, Sénégal brille partout on a toutes les possibilités pour le faire. dëgg la. mën na am nettal bu dafa dem ni ngi wax nii. Ah. waaw. mën na. waaw mën na dafa bëgg bu ëllëg ñu nettal wax na dëgg di waaw. am na solo Abu Jibaa mun a dee ba faw dafa am. Mm-hmm. Hmm? da ko wax ci pulaar mën dee ba faw dafa am waaye kii dee ba faw mooy ki nga xam ne kii dund bu dundoom jeex def lenn lu mën a nit ñi mën a nettali ëllëg. lu mën nit ñi mën a jàpp xam nga lu mooy dee ba faw. Mm-hmm. ñoo xam ne dee dañ ba faw. xamut fàtte fàtte nga leen sax hmm. mais am na ñoo xam ni tey dafa mel tey ñu ngi ngi ci yow tey ñu ngi dund ñaari baat ñetti baat yoo xam ne seen diw de nee na woon waaw wala ñaari baat ñetti baat loo jënd gën ne Babacar Touré de nee na woon hmm. ah diw nee woon diw nee woon hmm. xool xooloo ñu mel noonu loolu la yéene kaay bi daal di xam ne léegi nag numéro 30 ba lay sol moom 30 waaw bu sol numéro ah. ko sol non numéro 30 ak numéro 2 kii yooyu man yooyu laa yemale yow 7 rek ay 7 ay 11 yooyu ah. waaw Neymar nag mooy mooy jël diisam ba de. waaw ah, Neymar mooy jël diisam ba eh, mooy itam am na sas de ah. am na sas. 30 na baax na 30 hmm? numéro bu baax la. 30 waaw baax na de am na sas numéro du ci dara de wala dañ koy tànn ñoom non. waaw ah kon koy dara la ci. numéro waaw. Ah. am na ñoo xam ne ñoom am na ñoo ah. xam ne 10 rek la ñuy sol. waaw mais tànneef la. am na ñoo xam ne set rek. ñun xam nga ñun suñ suñ jaay ay nawet ay ay nawetaan ay nawetaan numéro bi si boppam rek dañuy xool sax ne numéro bi poste sàngam la booy football poste sàngam moom moom ko war a sol te boobu amul feneen ah mais xam nga xam nga tey nawetaan numéro kese kese kese dañ ci daan téye nit waaw waaw mu ngi noonu de en tout cas euh, noonu arène bi tamit waa écurie Fass ak ña ko jiite ne nee nañ dañoo bëgg ñu tuddee ko Mbaye Guèye ndem si yàlla Mbaye Guèye Sénégal daal moom foog nga faatu pour ñu tuddee soxna Fatou ñu tuddee la ko. tey ah, Sénégal ah, na ku ñu tuddee. barki daal moom. am na ku ñu tuddee barki démb aw aw aw xaal nag. kan muy Ablaye Ablaye kii Ablaye Diaw. nga dee daal ñu foog la tuddee daal. foog mu dee mën na ko yàlla yéex foog mu dee <laughs> dëgg de. moom sa gisam baaxut de. laa ilaaha léeg-léeg da lay <laughs> xam na luy bërxal. ah non imaam nag léeg-léeg day. kii day day kii yor yor jannat yi boobu weesu. xam nga boobu boo dee wax. sëriñ <laughs> bi taalibe bi kañ mu waroo théâtre. ah déedéet non xam nga xam nga xam nga ñun suñu wax. dafa suñu suñu suñu suñu xam-xam du suñu te yow. nitu yàlla nga da ngay wax yàlla yàlla def. dañ lay kii jubbanti. jërëjëf nañu góorgóorlu ci xasaay di hmm. tey ah, euh, ah. ku tedd ki waaw hmm, moo te xale général des Mourides hmm. moo woo taalibe yëpp te nag waxul rek nag ku nekk Touba wala nga dem tubaa mhm. am na ñoo xam sax dégg naa jar na leen ba ñoom Touba rek lañ ko bëgg a defee ji. dëgg la mais sëriñ def na fépp waaye man di nekk. am na solo Babacar nee na su luy jeexee dañ koy def en direct. si ah, alhamdulilah rabbil alamin mi ngi noonu. am solo la loo xam ne lii suñu jàmm rek la ko wootee. Mm. waaw kon nag ku waay loo nga jàng xasaay bi jàng ko. Mm-hmm. la ca la ca leneen loo mënut a jàng tamit am na leen loo xam ne lii mën def. am na solo. voilà jërëjëf. jërëjëf di daje. altine suba jàmm. <laughs> ci laa xëy altine suba incha allah ci laa xëy doo ko déclaré <laughs> di jaay di jaay Souleymane lii jamonoy mbas la. boo ko wóotit kenn du ñëw. jërëjëf Baye maa ngi masawu Abdou Abdou Wade. Abdou Wade mu ngi leen di surtout. Euh, waaw. Euh, tout tànkam amoon dafa delluwaat. Eh. waaw xam nga nit ki aussi ku ñuy bay xel la. Mm-hmm. moo tax euh, gis nga ko daanaka defaroon defaroon na yéppam pour pour bégaloon soxnaam teral doomam li yàlla dogal. Mm. Hmm? sant nañ si yéen ñëpp. kon nag euh, ñun tam ñu ngi koy ñaanal yàlla may xulam muñ. Mhm. waaw tout tànk bi nga xam ne bi nga xam ne bi moom la waroon a waajal pour ngénte ko mhm. moo dellu mu ngi noonu jërëjëf Alioune xam naa ba beneen yoon rek ñu ko mënee suba moom xam naa jafe ko la <laughs> waaye daal suba amul konte ah. bu ñu ko ah. mënee rek ñëwaat suba du am xanaa suba duñ def direct fële ñu def direct de waaw ah. mën na nekk de ndax fay ñëw moo tax. ça dépend si Alioune rek. ah man dañuy wax dëgg yàlla taal bi laa rek de ndigal lay doxee de. <laughs> jërëjëf ñu sant leen bu baax gërëm war a installé antenne bi. Hmm. mu yuusut ak na ci. <laughs> tey ci ngoon lu ko commencé lii kii. waa tàkkusaan kay moom nag. Eh, am na solo jërëjëf ñu sant leen bu baax gërëm leen eh, mais ñu ngi waajal suñu vol d'hiver yi aussi Alioune. waaw macha allah novembre démb nag soxna mu ne. waaw sama information yi dafa gudd naa leen bàyyi ngeen di wax. nee na bana man dama ci boole lu ci bukk man hmm. information yi mais damay dem ba nee na samay wax damay yàq li ma naroon a jaay naa wax jaay bi wax newas te bay jëf jaambur hmm. hmm. naa bay jaambur yi waaw nee na li ma ci joxaale ñeneen ñoo ciy gañe du yéen rek ñoo ciy gañe léegi naa leen bàyyi ngeen def seen communication xam ñoom ko ah, te man su ma waxee ñii damay bëgg waxaale ñëpp nee na li sama dégg na ma démb information daa bëri li ma ci joxe ñëpp ñun dañ ciy gañe sax na waaw na dëgg bëgguma yàq njaayum jaambur wax na dëgg wax na dëgg wax kon bàyyi ñu koy ah, gérer leen seen communication bàyyi ñu koy gérer su amee information Moodu ngeen bàyyi ñu wax suñu waxu Moodu Moodu <laughs> jërëjëf jërëjëf sant ñëpp sant Babacar Niang mu nekkoon si euh, ginnaaw Mariama Diaw Traoré Mohamed euh, Touré euh, Mohamed sekk si rajo bi midi si rajo bi di ngeen am seen journal ak moom Serigne saa Guèye Euh, dig daje beneen yoon incha allah jaa ngeen def si kanam tuuti suñu rando di ngeen am en direct sa Touba ak euh, euh, jàngum xasaayit yi nga xam ne sëriñ bi woote na ko foofe en direct lay doon si kanam tuuti jaa ngeen jëf si déglu bi.